c'est ça qu'il fait. kon ba déconnecté woo ma fii ok super. faisait quoi quinze heures tàmbali kon ni ñu koy defee talaata bu jot ci waxtu wi ànd ak ñi nga xam ne ñooy ay euh, soppey Walfadjri di partage ak ñoom lenn ci jàngat yoo xam ne dañ koy am ci actualité mu réewum Sénégal ak ni muy doxe euh, Fatou maa ngi lay nuyu bu baax yow mi nga xam ne yaa ne ci xarale gi du nuyu Jamil mais tey waxtaan dañuy commencer euh, nuyu euh, suñu ay mbokk yoo xam ne ay soppe lañu di ñu topp saa su ne euh, bokk nag ñii ne ci réew mi ñii ne ci bitim réew foo leen natt ci àdduna bi rek da leen dafay fekk ñoo xam ne su waxtu wi jotee ba wala talaata léegi dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi lee sama xel dem ci ku mel ne ay chafal ak borom këram ñoom ña nga ca Canada ak euh, suñu jigéen bi di Fat Thiaw euh, Diène noonu la ñu nuyoo également ku mel ne Serigne Fallou Samb moom mu nga ci États-Unis moom ak euh, suñu xarit Alassane di nuyu Cheikh Ndiaye moom mi ngi fii ci Bombali Cheikh Ndiaye nag Fatou baykat la waaye bu bayee ba pare ba ñebbe ji ñor gerte gi au lieu que mu dem jaay ko da koy lekk. ñu ngi koy nuyu baax moom Serigne seex Ndiaye di nuyu bu baax euh, euh, sëñ Mamar Diagne sëñ Mamar Diagne di suñuy waajur di suñu xarit nga xam ne moom jàngalekatu alxuraan la nekk ca Louga fan yële ci ginnaaw bi ma nekkee congé invité ne ma ma dem ba ci daaraam euh, ñu toog fa diggante tàkkusaan ba timis di waxtaan ci Sénégal ak ni muy doxee muy góor gu am vision ci ci Sénégal ci àdduna bi am culture trop trop mais également nekk koo xam ne. dafa am courage trop ci ay idée parfois ma ne ko euh, courage bi nga am man mi nga xam ne maay liggéey ci télé ak rajo euh, aw ma ko mais ñu ngi koy ziar bu baax moom euh, sëñ Momar jaaj moom di ko ñaan moo xale ca daara ja bu ñu fàtte mukk ci ci ñaan Jamil attends attends avant avant may ñëw ci loolu parce que su ma nuyoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nii ma jàkkaarloo il faut ma xool également ñi nga xam ne comme ni ñu koy defee bés bu nekk ñoom ñoo njëkk euh, ci live bi de bokk na ci Mamor mbay Mamor moom mën naa euh, chaque jour rek avant may tijji sax ma commencé ko duy parce que moom bés bu ne mi ngi ci mu ngi ci live bi Mamor ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar bu baax Alioune Bey mu ne defar leen son bi balaa Moustapha di commencé Fatou loolu waroon naa la ko wax balaa may commencé euh, Alioune Bey moo ko wax Modou Kara Gammu mu ne bonjour Moustapha sama soppe ziar naa la man tey maa ngi lay ziar bu baax a baax Modou Kara. Euh, di ziar euh, Serigne Diop mi mu ne Hadj Moustapha euh, da ngaa leer sax hmm, ah, je sais pas xëy na caméra yi rek ak lumière bi kii taal sama kaw Jamil moom leen war na jël congé comme yow waaw ah, man day congé moom gëjoon naa ko jël mais ren jii li ma ci dal nee naa say boo waawal fajiri pare rek mais chaque année incha allah rek bu ko fekkee congé mënta ñàkk Aliou Seck ziar naa la Moustapha bëgg naa la seet si mu ne. bëgg naa leen seet si euh, mësuma gis kenn ci yéen Aliou Seck ñu ngi fii ci ci Walfadjri rek douze rue du front de terre boo fi ñëwee waxtu boo fi ñëw di nga fi fekk euh, gars yi koo fi soxla di ko gis incha allah amul protocole. Fatoumata Cissé maa ngi lay euh, ziar bu baax Cissé mu ne wallaahi dëgg rek moo tax ma bëgg la man tamit euh, sopp naa trop Fatoumata te xaw ma la mosuma la gis Baye Modou Maam Mor Baye wax naa ko sànq euh, bàcc Mbengue ñu ngi koy ziar bu baax Ndiir Bois xanaa moom menuisier la ziar naa la yow tamit mu ne Saliou Walf ñu ngi lay ziar Moustapha Sall mu ne jaay ngeen jëf Moustapha yow tamit jërë nga jëf juuf mu ne salaam Moustapha ñu ngi lay delloo nuyoo yow tamit. Sidi Sow euh, nuyu nañ ko bu baax a baax mu ne Moustapha dama la bëgg ba gëmewuma ba gëmewuma ko euh, Sidi euh, Oustaz Aliou Sall moo ko doon wax koo bëgg rek bëgg na la ah, wax dëgg yàlla jàppal na cofeel bi nga am ci ñun moom lañ am ci yow yàlla bu sa yaakaar tas mukk ci li tax nga am cofeel boobu la ci ñun ma jigéen Diouf faatu mbaa taxawul waaw kon baax ma jigéen Diouf parce que waa ji teel na la avertir tey ma jigéen Diouf mu ne salaam grand euh, booy demati vacances il te faudra notre euh, approbation incha allah <laughs> tu nous as beaucoup manqué ma jigéen kon li ma metti soo rek si ma dem congé il faut ma tàggu leen nee na ban jox ma ndigal may may soog a dem mais bon euh, xam nga nag Sénégal dañoo jëm ci ay xam naa naa ci ñëwaat léegi. ci ay échéance yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne échéance yu am solo la moo tax boo gisee ñu bari ci ñun euh, mu ci journaliste en tout cas dañuy préférer jël congé à l'avance pour que les mois qui qui viennent ñu mën a am jotu euh, mën a taxal dëgg-dëgg ci nga xam ne moom mooy moom mooy xew ci réew parce que mënta ñaar euh, soxna Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax Moussa Touré. moom it ziar nañ ko bu baax moom Moussa taxal ma couper son bii nii parce que son yu bari yi moom du Euh, ñu ngi koy ziar baax moom it euh, euh, bu Ndiaye mu ne Moustapha xanaa dangay ngay like je sais pas lu mu bëgg wax foofu loolu mooy leen Fatou hmm? je sais pas bon Ibra Bamou Moustapha content de man tamit bëgg naa trop ziar la Momar Thiam Momar Thiam également Mame Mor Gueye ñu ngi koy nuyu di ko ziar Abdou Ndiaye également mu ne. Euh, njóobeen euh, bëgg ceeb waaw xaw ma njóobeen xaw ceeb moom bëgg naa loolu moom euh, lu leer la am faat yi également ñu ngi koy nuyu Maimouna Dieng Maimouna moom commencé naa ko xàmme léegi parce que saa su ne dama koy gis ci ci live xam nga li moo neex ci ci ci ci façon bii ñuy defee live bi day dem ba ñi nga xam ne ñoom nga ci gis ñëpp da nga leen miin pratiquement il faut partie de la famille te loolu lu am solo la pour ñun. Euh, euh, Fatma Cissé wax naa ko sànq Lamine Anne également euh, Khadim Rassoul sa turu màgg na lool Moustapha Gaawal maa ngi ci de Modou Kara waxoon naa ko sànq ñu ngi koy ziar voilà Birahima Diagne fi mu toll nii war nañoo toll ci mille cinq cent personnes maanaam junni ak juróomi téeméeri doomu aadama yoo xam ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ànd ak ñun di waxtaan alors que bi ñu commencé léegi ci juróomi nit la war a toll xam nga loolu. Euh, du euh, nu ñu koy waxee sax kanam gu leer wala wax ju neex moo tax nit ñi ñëw fi mais c'est parce que dañuy yaakaar simplement que ni échange bi ñuy am ak ñoom euh, amal na leen jëriñ te loolu dinaa ko wax waxati ko lu rëy rëy ci man la lu rëy rëy ci équipe bi nga xam ne moom lay àndal te li ñu suñu waxoon rek suñu mënoon a jox ku nekk loxo ñoom ñi ñëpp la ñuy dem ku ci nekk ñu jox la loxo ne la ñu ngi lay jaajëfal ci ànd bi ngay ànd ak Walfadjri ndax waxoon naa leen que ni lu ñu gën a bari ay abonnés sur la chaîne YouTube de Walfadjri di ngeen gis yu baree bari yoo xam ne nu ñu ko def ci télé bi pour x raison fii lañ koy defee te dinañ ci jox également liberté wu euh, yi nga xam ne moom mooy am ay tolof tolof parfois ci la gestion de la télévision et de la radio comme li ñu xew daloon mars deux mille vingt et euh, bu bañ ñoo dalit wala bu ñu dee dalit dina fekk ñu am foo xam ne. on a suffisamment de d'internautes yoo xam ne mën nañoo ànd foofu ak ñoom di def euh, suñu suñu liggéey euh, moo tax euh, boobu ba léegi man bu ma commencé man ak Pape Mokhtar gis nga masse boobu mu ngi ci Mame Birame Wàcc également mais également Pape Ndiaye te yeneen ak yeneen incha allah bëgg nañ ko di ko ci di ko ci dolli Jamil fu ñu toll ci kii bi blessure Sadio Mané bi ah ba léegi leeragul alors boobu nag defe naa bés li ñu waroon def mooy bés bu nekk ñu def loolu ñu wax bulletin de santé wax gars yi ne leen Sadio Mané waaw comme Covid bi ak exactement Pape dañu war a def comme Covid bi bés bu nekk ñu wax leen ne leen tànk bi fii la toll ah ma ngi koy teg ma ngi koy man na cee dox man na cee daw parce que nag fi mu nekk nii li waa ji waxoon réew mi daanaka kenn toogatul moo ko lii rek suba ci presse bi ñu ne am na ay imam yu nekk fële ca defe naa mooy dëkk moom dëkk moom. bambali wàcce ay kaamil euh, ngir yàlla taxawu tàgg may ne lool de am na solo waaye suñ ma ko indiloon ma yóbbu ko ci benn village bu tudd Barale nekk fii ci Louga defe naa ne une semaine léegi mu commencé daw de ma ko en lu am solo la lire naa également le ministre Ablaye Sow mu wax lu am solo parce que daf ne nañ wax dëgg sénégalais yi Sadio dafa blessé loolu moom mooy li dëgg dañ koy wax Sénégalais mu leer que ni Sadio il y a mu bañ a bokk ci coupe du monde bi comme c' est possible bokk ci mais suñ fi nekkee naan ñi ngi xaar ak ñi ngi yaakaar ak affaire yooyu ñuy dundee yaakaar ba ca bés ba euh, ñu ne Sadio Mané du mën a bokk bon man euh, jun ne suis pas comme certains journalistes sportifs yi wax ne waruñu woon man dama gëm ne dañ ko war a sélectionné dañ ko war a sélectionné espérant comme li ñu amoon ak Ismaïla Sarr ci kii bi euh, ci CAN bi. match yi avancé Sénégal yàlla na ko yàlla def mu sori ci compétition bi ñu soree xëy na saajo mën a dabe bu fekkee ne mënul commencé ak ak ñun mais en tout cas liiree li tax ma ma ciy taxaw d'ailleurs jamul bu ma liiree euh, waa ji mu ne ministre Ablaye Sow mu ne il faut dire la vérité aux Sénégalais Sadio dafa blessé ma gis benn waaye bu neex bindal ko ci suuf ne ko il faut dire la vérité aux Sénégalais Macky Sall mënut a bokk 2024 <laughs> ma ne ko vérité pour vérité rek loolu moom mooy liy dëgg ah bu ñu ko jaaree ci li ñu war a ci li ci liy dëgg rek mooy élection présidentielle deux mille vingt quatre Macky Sall munu cee bokk te waru cee bokk te loolu du waxu Moustapha Diop du waxu waa jooju bindal ko ministre Abdoulaye Sow du waxu également ñi nga xam ne ñoom ñooy ay chroniqueur rek ni ci télévision xam nga waxu kan la waxu président Macky Sall moom ci boppam moo wax ne wax ko ba pare bind ko ne. élection présidentielle 2019 bu ma Sénégalais yi ba fal ma su ma gañee jeexal naa ci 2024 bokkuma ci donc il faut diir la vérité au Sénégalais monsieur le ministre Abdoulaye Sow ne leen Sadio Mané dafa blessé waaye il faut dire la vérité aux Sénégalais également ne leen président Macky Sall bokkul ci élection 2024 pourquoi parce que moom moo waxoon ne bokkul yeneen yëpp naan ay constitution beeg euh, deuxième quinquennat ak ay tappale rek la tappale rek la waxu kilifa moom waxu kilifa la rek ah, moom moo wax ne bokkul bokkul ñu seeti leneen donc mi ngi noonu euh, dinaa ci ñëwaat léegi sa ak élection présidentielle 2024 parce que comme ni ñu ko tànnee euh, tey comme sujet mooy 2024 tàmbali na déjà moo tax ma ne 2024 c'est maintenant mais dama bëggoon a taxaw très rapidement ci li nga xam ne moo concerné taskatu xibaaru Sénégal yépp mais du mbiru taskatu xibaar rek parce que dégg naa ñu bari ñu wax ne wéy Pape Alé dañ ko jàpp journaliste yëpp dañoo war a taxaw comme bu fekkoon dañoo jàpp benn médecin médecin bi dañuy taxaw bu jàppoon benn kii ñëpp dañuy taxaw donc moom dañ ko war a taxawu ndax ci ñun la bokk ma ne d'accord sur le principe je suis d'accord mais li tax ñu gën a war a taxawu Pape Alé Niang génn fee mu nekk moo di ne man dama gëm ne wax naa ko fii keroog li ñu koy jàppee teguñu ko fenn man loolu laa gëm muy benn ñaareel bi moo di ne euh, ni ñu ko euh, jàppee noonu ba. teg ko ci bërëb ne ko fii doo fi jóg tant que lijjantiwul say biir ba pare ku ci nekk ci ñun waxuma quand je dis ku ci nekk ci da nga yaakaar ne journaliste rek la waxal mais ku ci nekk ci sénégalais yi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ci réew mi ñu yëkkati seen kàddu di wax ak fu ñu ko mënti waxee nag ne leen leer ne loolu mën naa dal ci ñoom faatu année yi ñu génn gis nga imaam yu bari ci seen xutba lañ leen jàppe def ci kaso bi am na ay sénégalais yu bari ci seen page Facebook la ñu bind ñu jàpp def ci kaso bi am na ay sénégalais yu bari si YouTube lañu ñu toog comme ni ñu toogee fii di def live ñu jàpp def ci kaso bi donc li dal Pape Alé Niang il faut que sénégalais bu ci nekk gëm ne euh, nu ñu koy waxee du mbiru Pape Alé Niang mais mbiru population Sénégal bépp la te su ma déggee yenn ci journalistes yi ñu xaw a sceptique ci combat bi nga xam ne moom la ñuy mëne en tout cas man moom laay mëne te ak ñeneen ak ñeneen pour que Pape Alé génn foofu mu nekk dama naan quelque part. ils n'ont pas très bien compris ce qui se passe Fatou est-ce xam nga ne euh, charte yi nga xam ne moom la procureur teg pour yóbbu Pape Alé kaso daf ci am bu mu ci tànn sànq rek maa ngi déggaat euh, sama grand di ko wax moom Daouda Mine dafa am bu ci procureur tànn boo xam ne Jamil lu doy waar te jar na bàyyi xel xam nga dañ naan la juge bi mooy le juge d'instruction dañ naan la moom moom mooy placer nit sous mandat de dépôt ma mooy yóbbu nit prison ñu ne juge boobu kenn du ko digal lu muy def kenn du ko digal moom mooy tànn ci xelam en toute conscience mu xam ne kii ñu ko àndil lii ñu ko tegal jar na yóbbu kaso mu yóbbu kaso jar na placé sous contrôle judiciaire muy placé sous contrôle judiciaire jar na jar na jar na moom mooy décidé ma ne d'accord le juge Mamadou Seck bu bu yore deuxième cabinet fële ca kii ba moom moo ko def mais dafa am lu am solo mooy ne procureur dafa am ay loi yoo xam ne su fekkee ne faatu yow mi dañ lay topp yàlla bu ñu la topp su ko procureur visé dañ ne le juge d'instruction amul pexe il est tenu de décerner le mandat de dépôt maanaam li ma bëgg a wax mooy jërul di citer ay article numéro sangam numéro sangam je dis souvent aux chroniqueurs judiciaires que loolu dafay jaxase ñi nga xam da nga leen déglu da nga leen wax ci ay wolof yu leer ñu dégg Jamil su fekkee tey da nga am problème ak yoon. comme ni ko Pape Alé Niang amee procureur dañ ne mooy avocat wu société bi maanaam ñu ñëpp procureur mooy défendre ñu intérêt ñu ne procureur moom la moom mooy maître des poursuites maanaam moom mooy toppe moom mooy toppe avocat day défendre ñu ne procureur moom mooy toppe ñu ne procureur moomu di toppe kan mooy patron ñu ne ministre de la justice il faut ñu wax ko mu simple rek ñëpp comprendre ministre de la justice kan mooy patron président de la République kon Jamil war ngaa mën a gëm ne procureur moomu am na koy jox ndigal am na patron muy benn ñu ne la procureur moomu nga xam ne moom dafa nekk ci resp si si autorité wu nit ci autorité wu nit dafa am kilifa ñu ne procureur moom su fekkee dañ la yóbbu ci juge d'instruction procureur bi def ay réquisition ñu ne am na article yoo xam ne bu ko procureur visé maanaam wax ne Euh, article sangam euh, noté woon naa ko mais je pense que day grouiller nit ñi da leen da leen jaxase mais su fekkee dañ ne procureur dafa viser article sangam ñu ne article boobu su bokkee ci li procureur visé maanaam ci lim lay toppee yow soo demee ci juge d'instruction bi le juge d'instruction et tenu bu ñu ne laa nit il est tenu mooy mayuñu ko mu tànn day def par force li nga xam ne moom la procureur bëgg. moo tax keroog avocat wu Pape Alé Niang ñu wax ne euh, procureur bu euh, juge d'instruction bi mu koy décerner mandat de dépôt maanaam di ko yóbbu prison daf na ko je suis mais mënuma leneen loolu yóbbu la prison waaye léegi à partir de cet instant là est-ce que yow mën ngaa gëm ne le juge d'instruction il est indépendant ah moom il est indépendant mais independant am dañ ko tënk ci bu ko procureur waxee ne ko à partir de article sangam yóbbul kii mandat de dépôt moom amul beneen pexe bu dul yóbbu la mandat de li muy tekki rek ci lu simple parce que man vraiment dama bëgg mu simple ci bopp ñuy seetaan ba nga xam ne Pape Alé li ko dal mën naa dal kenn ku nekk ci li lu simple mooy su gouvernement wu Sénégal décidé woon tey ne kenn ci ñun ñett ñii dafa war a fanaani kaso ñu ne procureur topp ko ci nangam ak nangam procureur bu la dee topp am na article yoo xam ne da koy viser rek soo demee ci juge d'instruction amul benn pexe bu ñu yóbbul prison amul wala boog nga am doole ju toll ne ci Ousmane Sonko amoon en mars mille vingt et te loolu yow amoo ko Fatou amu ko man aw ma ko ñuy seet amuñu ko moo tax daal euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy toog naan waaw man daal euh, Pape Alé lii Pape Alé laa nañ bàyyi xel ne bis bu tolof tolof bi gën a ndaw amee ci seen làmmiñ ba loolu dal leen lu de lu mel ni mën leen topp te li tax mu am solo mooy Fatou wax naa leen fii keroog ne Pape liñ koy toppee ñu bari dañoo jàppoon ne euh, dafa am benn laay bu mu defoon. wax ne dafa am un rapport interne boo xam ne gendarmerie ñoo ko def jëme ko ci wàllu l'enquête boo xam ne mi ngi amoon ci les événements de mars 2021 bi fi soxna soosu di Adji Sarr jiiñee waa ji di Ousmane Sonko ne dafa yegg ci kawam ci lu ko neexul waa gendarmerie def seen enquête ci biir am lu ñu ci yëgle lu ñu ci wax ñu ne enquête boobu moom la Pape Alé génne te waru ko génne moo tax ñu koy topp mais li tax ma koy fàttali mooy avocat yi Pape Alé ñoom ñoo dajee ak kuréel gi nga xam ne Euh, taskatu xibaar yi ñoo ci nekk muy CAP con euh, coordination des associations de de la presse ba pare ñu tijjil ko ak yeneen journalistes yoo xam ne bokkuñ ci association yooyu mais ñu ñëw bokk ci benn collectif te man mi ci collectif balaa bokk gis nga bi ñu dajee ak avocat yi yi dañ ne li ñuy toppee Pape ale bi mu demee ci àttekat bi tuddul benn yoon rapport bii nga xam ne Sénégal gépp dañoo jàpp ne moo tax ñu jàpp ko tudd ko benn yoon loolu avocat moo ko tudd ko benn yoon ça veut dire que rapport moom jël nañ ko tege na beneen bi ñu ne ñoom daal li liñ wax ne moom lañ koy toppee bokk na ci benn euh, message bu waa police jëloon message interne pour envoyer ko seen biir mu génnee ko muy benn te message boobu ñu waxantee dëgg euh, dana woon fànk ci réseaux sociaux yi mel ne kuy teg géej ci marché beneen bi ñu ne benn note de service boo xam ne waa sapeur pompier la woon euh, ci seen biir la war a ne mu génne ko laa même chose note de service boobu tamit boo xoolee ci réseaux sociaux yi da nga koy gis te yaakaaruma ne Pape Alé moo ko njëkk a génne ñu ne ko également laaj nañ ko ci affaire waaye ji nga xam ne moom lañ tëjoon commissariat central te mujj faatu muy Mankab ñu ne defoon na ci benn live laaj nañ ko ci laaj nañ ko également ci lu mu waxoon ci mbirum général Fall loolu boo ko déggee sentiment bi ngay am rek moo di ne quelque part Pape Alé Niang gaa yi ko jàpp ba pare yor benn torche di wër fi euh, euh, at yi ñu weesu ana lan la fi wax loo xam ne. mën nañ ko cee topp te réew bu tollee foofu man damay commencer di wax ne lii nga xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de la presse moom mi ngi commencer dee bu deewul ba pare parce que liberté d'expression ak liberté de la presse suñu ko dee wax nekkul ay textes yu ñu bind ba mu leer parce que bu dee ay ay texte c' est vrai am na ci Sénégal euh, ci suñu code pénal wala code de procédure pénale des articles liberticides yoo xam ne tey journaliste bu ñu ko gàll sa kaw nga dem prison yooyu am na mais lu texte yi baax baax sax li nga xam ne dëgg-dëgg mooy tax nit ku nekk am sentiment wu ne respecté nañ liberté de expression ci réew mi respecte nañ liberté euh, de la presse ci réew mi mooy doomu aadama bu nekk waxuma si journaliste de mais doomu aadama bu nekk même kiy wax kiy woote rajo di wax wax sa xalaat mu am sentiment wu ne moom lii muy wax nii tant que waxu ci loo xam ne dafa nekk euh, aw saaga wala euh, xaw yi suturewu doomu aadama wala yu mel noonu dara du ko ci fekk cest à que wax sa xalaat en toute liberté loolu mooy liberté d'expression mais su fekkee ne da nga am sentiment yow journaliste bi même dans les pays de guerre journalistes yi souvent ay lois yu baax moo am ci réew yooyu mais lu tax souvent ñu naan la liberté de presse est menacée dans ces pays là dafa fekk ne journaliste bi nga xam ne mooy liggéey ci réew yooyu am na yoo xam ne su ko waxee dara mën na ko cee fekk tey Sénégal gi journaliste bu ko wax ak bu ko waxul ñëpp ñi nga xam ne ñooy wax ci rajo ak tele ñoom ñëpp xam nañ ne tey li nga toog di wax nii am na lu la ci mën a fekk soit nga wax loo xam ne neexul nguur wala nguur. yaakaar ne da koy yàqal dara mu jaar la fi mu jaaree Pape Alé Niang wala nga wax loo xam ne neexul beneen euh, leader wala beneen euh, nit ku am mbooloo mu nekk leader politique opposition comme pouvoir mu nekk ab sëriñ wala mu nekk ab homme d'affaires wala leneen mais en tout nga wax koo xam ne moom moo la ëpp doole wala moo la ëpp mbooloo te li nga wax ci moom wala li nga bind ci moom même bu dee dëgg neexu ko kooku mën naa dal sa kaw loolu réalité wu Sénégal à partir de cet instant la dañuy remettre en cause li nga xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de la presse te boo ko remettre en cause fan yëpp maa ngi koy wax mooy mën nga contrôler li nga xam ne moom laay woowee les médias classiques mooy télévision yi rajo yi journaux yi parce que ñooñu dafa am benn cahier de charge boo xam ne je prends l'exemple de Walfadjri bi ñu koy jox licence pour mu nekk télévision boo xam ne nit ñi mën nañ koo seetaan fii ci Sénégal ki nga xam ne moo ko jiite dafay dem ñu jox ko benn cahier de charge mu signé ko cahier de charge boobu daf koy wax ne que da nga am obligation respecter nangam ak nangam ak nangam ak nangam yaa ngi dégg. donc Walfadjri googu boo fa nekkee yow mu neex la mu naqari la lépp loo xam ne engagement wu Walfadjri la ak état wu Sénégal ci lu mu war a respecté ci kay de charge bi nga xam ne moom la signé da respecté. soo ko respecté wul CNRA mi ngi taxaw et d'ailleurs sax une petite parenthèse dafa mel ne suñu ministre bu bees bi ministre de la communication xëy na mu tudd maître Moussa Bocar Thiam moom dañ ko fal ministre mu def la Youssou Ndour waxoon ne jumbóori dañ ko fal buur mu jël yatam di dóor ko deful dara c'est-à-dire que moom dañ ko fal ministre au lieu mu xam lan mooy liggéeyu ministre moom mu bëgg a def liggéeyu CNRA dem ci émission rajo yi naan on va sanctionner danañ def lii danañ def la nangam ak nangam daf may fàttali rek benn ministre bu ñu fi masoon a woo ministre de la communication saan woote fii ne day faj Walfadjri ma ne leen paas leen ma ko ma wax ak moom téléphone <laughs> bu fekkee ne ministre moom day toogam neex rek mu ñëw ne day tëj Walfadjri paas leen ma ko ma wax ak moom téléphone mais bon mais li am solo mooy di ne donc dañuy am obligation respecte li nga xam ne mooy cahier de charge télé boo ko xam ne moom la signé soo demee 2S euh, euh, dafa am cahier de charge bu ñu signé war ko respecté soo demee Sen TV dafa am cahier de charge bu ñu signé war ko respecté soo demee 7TV soo demee TFM soo demee IT ITV foo mënti dem foo mënti dem télévision boo gis ak journal boo gis. dafa am loo xam ne ay charte la yoo xam ne moo ko tënk am na foo xam ne su mu bëggee dem dañ naan nii jàpp ci loxoom ne ko lii dangay ngay violer cahier de charge bi nga xam ne moom nga signé woon te boobu bés bu euh, mo jamono bu ne da dégg ñu mel ne waa CNRA di ñu ko fàttali mais su fekkee ne ñooñu nga xam ne am na lu ñu war a respecte te te di ko respecté nag ak lu ñu mën parce que wax naa ko démb rek sama benn collègue fii ma ne ko coow li bari na lool mais man benn journaliste sénégalais bu jël aw saaga jëmale ko ci président Macky Sall dégg ko mën nañ ko critiquer de manière très très sévère mais dans le respect de l'institution bi nga xam ne moom le président Macky Sall incarné muy président de la République du Sénégal mais su fekkee ne journalistes yooyu nga xam ne comme man ak ñeneen ñu bëree bëri ci chaîne de télé yi ak rajo yi dañoo am souci wu di respecter président Macky Sall di respecter institution bi nga xam ne moom la incarné kooku su demee ba mënatul wax parce que dafa yaakaar ne su waxee li dal Pape Alé mën na koo dal wala boog su waxee mën nañ ko teg ay bunduxataal mu ne léegi man duutuma wax xam nga lan lay jur dafay am ku koy wuutu ki koy wuutu mooy kan mooy sénégalais bi nga xam ne dafa nekk états uni wala kanada wala France wala même fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru wala ci yeneen dëkk yi ci Sénégal am benn chaîne YouTube am wala benn kii am comment est-ce qu'on appelle benn page Facebook am yu mel noonu wala sax nekk ci groupe WhatsApp nga xam ne moom amul benn cahier de charge kenn. kooku Jamil bu dee wax day wax lu neex di wax lu naqari di wax xamul lan mooy limitam xamul parce que amul amul ku muy ku muy rendre compte en fait moo tax ngay dégg ñu naan la yenn librairie yi dañuy dem bay saaga président de la république ñenn ñi di dem bay saaga soxnaam xam nga ne doo dégg benn journaliste sénégalais mu dé mu yëkkati baat bi gën a ñagas di ko jëmale ci soxna njiitu réew mi wala mu yëkkati baat bi gën a ñagas di ko jëmale ci président de la xam nga lu parce que dañu am responsabilité boo xam ne déjà nos règles d'éthique et de déontologie permettre wuñ ko mais également euh, fi nga xam ne fa la ñuy waxee muy waajur gi comme man fi ma nekk duñ ma fi may mukk may wax wax yu mel noonu di ko jëmale ci président de la république parce que tëju kër gi mën na cee ak mais ki nga xam ne dafa YouTube nag ah kooku amul compte bu muy rendre kenn moo tax nañu def attention te ni la liberté de presse la liberté d'expression buñ dee xeex pour ñu sàmm ko c'est pas pour les beaux yeux des journalistes mais c'est pour dañoo gëm ne loolu mooy njariñu askanu Sénégal parce que Jamil pour avancer un peu ñu wax ko ñu bañ koo wax moo di ne jamono ji ñu toll sénégalais yi ne ci biir réew mi ak yi ne ci bitim réew sénégalais yu góor yi ak yu jigéen yi sénégalais yu màggat yi ak sénégalais yu nekk xale Sénégal yi nga xam ne dañoo yor soxna yor njaboot ak sénégalais célibataires yi koo ci laaj am na benn tiit bu ne ci moom parce que ñun ñëpp dañoo gëm ne fii jamono jii may waxee ak yow nii ba ba février mille vingt quatre lu nekk mën naa xew ci réew mi lu nekk mën naa xew ci réew mi te loolu jërul di ko jiiñ kenn ak kenn jërul jàng science politique. wala nga jàng sociologie wala nga jàng leneen pour xam lan moo ko waral lenn dong moo tax sénégalais am crainte tey mooy dañu am occasion pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu jëm benn élection présidentielle boo xam ne du ñu folli dañuy fal en 2000 dañoo folli Abdou Diouf jaar fa falaale Ablaye Wade en dañoo folli Macky Sall jaar fa falaale dañoo folli Ablaye Wade jaar fa falaale président Macky Sall en 2024 Fatou du ñu soxla folli kenn dañuy tànn ne ana kan moo gën ci réew mi ñu dénk ko réew mi te loolu dafa am solo li tax sénégalais yu bari di am crainte di am euh, tiit moo di ne dañu gëmoon ñun ñëpp à commencer par ñi bokk APR ñi gën a jege président Macky Sall dañoo gëmoon ñun ñëpp en 2012 que ni élection présidentielle 2012 Macky Sall gagné na ko 2019 mën naa bokk mais 2024 Sénégal day am beneen président ñëpp ñoo lañ gëmoon président Macky wax ko fu ne ne 2024 da ngeen ni tànn beneen président mën naa tudd Jamil mën naa tudd faatu mais du tudd Macky ñu ne ko lu tax mu ne parce que man maa def ci constitution wu Sénégal ne damaa bëgg li fi xew a 2012 ba ay nit dee fi dootul xew ci réewum Sénégal ñu ne ko nooy def mu ne damay bind constitution bu bees ba pare verrouillé ko ne kenn mënatul def ñaari mandat yu tegaloo ci biir réew mi yenn borom xam-xam yi nga xam ne parfois seen xam-xam daf leen yóbbu ci ak fumiste wala ak hypocrisie ba ñuy wax loo xam ne kenn waxloowu leen ko daal di commencé naan est-ce que mandat ba mu defoon muy mandat wu sept ce que ci lay bokk ab déet président Macky Sall taxaw ñëpp di ko xool mu ne man mënuma comprendre man président Macky Sall lan moo tax nit ñi di débat ci troisième mandat man maa ne 2012 fal ngeen ma ba 2019. ma ne woon dinaa wàññi mais wàññiwu ma 2019 bi nii maa dem di wuti su yàlla nangoo ak ci Sénégal yi bëgg ma nekkaat seen président bu ñu ma falee 2019 2024 man pare naa ci du ma bokkati wax ji jeexul jamono di dox di dox di dox ba jamono jii ñu nekk li nga xam ne moo war a dundal démocratie ci lañ war a nekk te gis naa ne euh, Malick Gakou ci la nekk Abdourahmane Diouf ci la nekk Ousmane Sonko ci la nekk te APR sax ci lay nekk te naa ñëw léegi wax loolu tax xam nga la mooy dundal démocratie mooy bu ñu jubee ci élection parti yi dañoo am euh, obligation wala coalition yi taxaw ne ñun diw mooy suñu mbër pour dem ci élection yi parce que dañu wax ne élection présidentielle dañu wax ne c'est la rencontre entre un homme et son peuple ma ne yàlla na homme boobu am profil mais également am projet bu muy proposé te li nga xam ne moom laa gis Euh, ñoom grand grand parti bu Malick Gakou def ko samedi man dama jàpp ne loolu mooy samedi ou dimanche samedi samedi je ne sais pas dimanche dimanche dama jàpp ne loolu mooy lii dundal démocratie xam nga mooy lan mooy am nga parti leader politique nga nga woote congrès sa waa parti ñëw ne ñun dañuy tànn Malick Gakou mii ne mooy suñ candidat en 2024 ñu ne tax ngeen koy tànn ñu ne parce que am na profil bi ñu ne lan mooy profilam ñu ne nekkoon na ministre nekkoon na nekkoon na euh, conseiller bu Famara Ibrahima Sagna nekk na homme d'affaires il a réussi dans les affaires et te kenn mësu koo topp ci dara ça veut dire que ni sàccul xaalisu kenn d'accord bu leen neexee mën nañ ko wax ñu ne mooy suñu candidat lan mooy seen projet ñu ne lii mooy suñu projet ci wàllu santé ci wàllu social ci leneen ak leneen ñu ne leen am ngeen ci droit démocratie noonu lay doxe ku mel ne taxaw ne man dama bëgg a nekk président wu Sénégal déclaré candidature am ñëpp di ko dégg mu ne sama parti sax danañ def seen congrès pour confirmer que ne man maay nekk seen candidat à l'élection présidentielle ñu ne ko d'accord ñu ngi lay dégg mu ne du ma yam foofu damay wër Sénégal gox bu ne ma dem fa nemmeeku ña fa nekk wax leen ne lii laa bëgg a def ak yéen su ma nekkee président wu Sénégal loolu mooy lii dundal démocratie ku mel ne Abdourahmane Diouf taxaw ne dama bëgg a nekk président Sénégal te lii moo tax ma bëgg koo nekk c'est ça la démocratie waa APR également ñëw taxaw ne dañuy jaay ay carte loolu ci démocratie la bokk te dañoo am droit taxaw ne dañuy jaay ay carte pour yokk suñu ay militants bu parti loolu dafa bokk ci liy dundal démocratie te c'est important pour un parti politique parce que dama gis ne depuis man bi ma demoon le congrès de l'AFP taw Moustapha Niass ba laa Wade nekk président Sénégal daanaka boobu ba léegi gisatuma parti yi ñuy def ngandi congrès yooyu PS moo ñu miinaloon ay congrès mais PS léegi moom defe naa yóbbaale ma la gën a nekk autre chose quoi mais dafa loolu gis nga euh, Jamil dafa bokk ci li dundal démocratie mais puisqu'il y mais APR dañu am un problème parce que autant je dis que ni dañoo am droit wala boog sax obligation di jaay ay carte pour di yokk seen ay militants renouveler seen parti également mais dañoo am loo xam ne amuñ ci droit waa APR am na loo xam ne amuñ ci droit amuñu droit taxaw jàkkaarloog sénégalais yi ne ñu ne leen Macky Sall mooy suñu bër loolu amuñ ci droit li tax amuñ ci droit mooy li ma la wax sànq mooy président Macky Sall moom moo taxaw ne man Macky Sall man Macky Sall aw ma droit nekk candidat présidentiel gis nga bu ñu waxee loolu ba pare ci la waa APR waroon na commencé xool ci seen biir ci seen biir ne ñun ñuy kër wax dëgg yàlla. ñu ne opposition di wax gënuñoo xam réew mi gënuñoo bëgg réew mi gënuñoo nekk ay gor dàqu ñoo jàng lan moo fi jar kon ñu mooy ci président Macky Sall ne ko budul yow du keneen non dañu war a jaay carte ba pare tànn kenn ci seen biir xaw ma kum ciy doon bu leen neexee sax na nekk euh, je mbay njaay walla Mbaye Ndiaye wala euh, waaw Mbaye Ndiaye kay wala keneen ku leen neex wala mam mbay Niang wala Abdou Mbow kenn ku leen neex rek ku leen neex ñoom waa APR. ne kii mooy suñu candidat kii lañ bëgg bu ñu demee élection présidentielle mu wuutu président Macky Sall ci réew mi bu leen neexee sax ne da ngeen woo Sénégalais ne leen ñun kët am nañ président boo xam ne man su ma bokkoon APR ñu xam am nañ président boo xam ne am na bilan bu mu def ci réew bi waa APR laay wax de parce que boo ñëwee ci réewu taax yi comme Dakar gi ñu nekk bu leen neexee ne def na fi tali def na fiy pont def na fiy nangam ak nangam su leen neexee ne ba mu nekkee président. moom président Macky Sall wàññi woon na taxes yi nga xam ne moom lañ daan teg ci salaire yi. liggéeykat yëpp à commencer par man mii yëgoon nañ ne seen salaire yi yokk na bu leen neexee wax ne moom président Macky Sall ci wàllu social def na nangam ak nangam projet boobu nu ñu ko tuddee bi ñuy yóbbate xaalis bi la xaw bi ñu yónnee xaalis xaw ma nu boobu am na bu ñuy yónnee xaalis rek. Euh, dina dina ñëw après président plan Sésame bu Macky Sall moo koy moo koy def mais en tout cas euh, programme la ci wàllu social bu leen neexee ne président Macky Sall bi mu jiitee Sénégal le programme Puma fexe na ba ay yoon am ci yenn dëkku àll yi ay forage bu leen neexee ne tabax na ay l'hôpital nangam nangam waaye comme léegi nag à partir de 2024 mënatul nekk président ñun dañoo bëgg sénégalais yi. Abdou Mbow mii wala Mame Mbaye Niang mii wala Mbaye Ndiaye mii wala bu la neexee sax ne mariam fay sàll mii dañu bëgg mu remplacer Macky Sall su ko defee projet yi mu amoon moom mu yeggale ko loolu mooy démocratie loolu mooy démocratie su ko defee sénégalais yi taxaw daan ne ah Ousmane Sonko taxaw na Malick Gakou taxaw Abdourahmane Diouf taxaw xëy na Khalifa Sall dina taxaw xëy na Karim dina taxaw xëy na keneen ku ma xamul dina taxaw waaye waa APR tamit kii taxaw na ne mooy seen candidat su ko neexee sax président Macky Sall ànd ak moom di battre campagne bañ xam ne mooy candidat sénégal Sénégalais yi tànn en toute liberté loolu gis nga loolu jame ku la ko wax mooy jàmmi réew mi ku la ko waxul mooy jàmmi réew mi parce que dégg naa imam euh, bu baax boobu ci Touba imaam Serigne Mor mbay ku baax ndeysaan te ñeme dëgg mu wax ne bu ñu yaakaaree ne Sénégal gii président Macky Sall dina fi déclarer candidature am te damay bokk élection présidentielle te dara du xew dañuy nax suñ bopp waaw mu ne buñ ko yaakaaree dañuy nax suñ bopp parce que bul fàtte ne en 2012 2011 2012 bi Abdoulaye Wade taxawee ne damay déclarer sama candidature nekkaat président wu Sénégal ba pare yokkal ci ne waa parteem su ngeen demee sax ñu ne leen président ma ma Abdoulaye Wade moo waxoon ne mënta nekk candidat tey bëgg a nekk candidat ngeen leen maa waxoon waxet mais coow loolu xam nga ñaata bakkan la jural Sénégal fukk ak ñeent au moins au moins faatu nañ ci. te sax am na ñoo xam ne nee na ñun xamuñu leen parce que comptabiliser wuñu leen mais faatu nañ ci ñu baree bari ñàkk seen alal réew mi demul réew mi dikkul lan la jur ñu dem élection président Ablaye Wade daan nga yaakaar ne Jamil li Sénégalais yi lànkoon ne duñ ko may Ablaye Wade en mille 2012 dinañ ko nangu dinañ ko nangoo may président Macky Sall en 2024 voilà hmm? parce que Ablaye Wade moo doon président bi nga xam ne ci président wu Sénégal yëpp moom moo ci amoon lenn. sénégal yu bari dañoo amoon sentiment wu ne Ablaye Wade moom nekk di mu nekk président wu Sénégal da koo mérito kenn may ko ko da koo xeex parce que 26 ans position la def yenn saa yi mu dugg yenn saa yi mu génn naa nga man a mais en tout cas li li un opposant war a def lépp pour nekk un président def na ko Sénégalais yi moment bu moment yi Ablaye Wade nekk pouvoir Sénégal bi nag da nga da nga jàppoon ne Ablaye Wade moom dafa mbir nekk président Sénégal. ba moom ci boppam wax dafa gëmoon ne pouvoir bi mu yor moom moo ko xeexal boppam ba yoroo ko boppam moo tax mu daan taxaw di défier opposition naa la bu ngeen bëggee marche génn leen nekk def na ko parce que dafa gëmoon ne pouvoir boobu moom kenn mayu ko ko moom moo ko xeex moo ko ñaq mais Macky Sall 2008 2009 la génn APR dàqante gars yi course de vitesse la moom deful course de fond course de vitesse la ko def 2012 mu nekk président Sénégal mais kooku. yàlla teraanga boobu bu yàlla defal ko defalu ko keneen ci réew mi defalu ko keneen ci réew mi parce que moment boobu muy daaneel ab Ablaye Wade amoon na candidat yoo xam ne ba ñuy nekk ba ñuy politique moom Macky Sall nga ma nga yor cartable am di jàngi école primaire te nekkoon nañ candidat moom ki mu daaneel moom Macky wax na ne lépp lu mu xam ci politique kooku moo ko xamal nga xam ne kon mbiru yàlla yàlla teral na ko. te bi ko yàlla teralee rek li mu war a teralee Sénégalais mooy rek tànn kenn ci waa APR bu ko neexee sax mu ñëw tànn ma ne moom mooy nekk suñu candidat en 2024 ne kii moom laa wóolu moom la suñu parti wóolu pour mu yeggalee li nga xam ne man maa moom laa commencé ci réew mi su ko defee ñoom Malick Gakou ñoom Ousmane Sonko ñoom euh, euh, Abdourahmane Diouf parce que ñooñu laa gis ci ci suba ñu ñu def seen ay photo ne ñoom déclaré nañ seen candidature ñooñu tamit ñëw taxaw ne li fi Macky saa def fukki at ñaari mu jiite Sénégal yëpp dara baaxu ci ñu dañoo bëgg bu ñu nekkee président du am continuité mais day am rupture ñu indi lii ak lii ak lii Sénégal yi tànn fal seen président c'est mhm. ñeme nañ. ah intéressant Fatou gis nga ñu bari dañuy wax ne APR kenn du yëngu mais naa la xamal leen de gis nga bu ñu duggee ci janvier deux mille vingt trois Macky Sall dina leen létt mbaa mu firi leen soit mu déclarer candidature ne day nekk candidat wala en mu xaar ba vers décembre c'est ça qu'il fait. kon mbaa déconnecté wu ma fii ok super. il est quoi 15 heures tàmbali kon ni ñu koy defee talaata bu jot ci waxtu wi ànd ak ñi nga xam ne ñoo ay euh, soppay Walfadjri di partager ak ñoom lenn ci jàngat yoo xam ne dañ koy am ci actualité dem réewum Sénégal ak ni muy doxe euh, Fatou maa ngi lay bu baax yow mi nga xam ne yaa na ci xarale gi di nuyu Jamil mais tey waxtaan wi dañuy commencer euh, nuyu euh, suñu ay mbokk yoo xam ne ay soppe lañu di ñu topp saa su ne euh, bokk nag ñii ne ci réew mi ñii ne ci bitim réew foo leen nat ci àdduna bi rek da nga leen fekk ñoo xam ne su waxtu wi jotee àllarba wala talaata léegi dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi lee sama xel dem ci ku mel ne Aïcha Fall ak borom këram ñoom ña nga ca Canada ak euh, suñu jigéen bi di Fat Thiaw Diène noonu la ñu nuyoo également ku mel ne Serigne Fallou Samb moom mu nga ci États-Unis moom ak euh, suñu xarit Alassane di nuyu Cheikh Ndiaye moom mi ngi fii ci Bombali Cheikh Ndiaye nag Fatou baykat la waaye bu bayee ba pare ba ñebbe ji ñor euh, gerte gi au lieu mu dem jaay ko da koy lekk. ñu ngi koy nuyu bu baax moom Serigne Cheikh Ndiaye di nuyu bu baax euh, euh, sëñ Mamar Diagne sëñ Mamar Diagne di suñuy waajur di suñu xarit nga xam ne moom jàngalekatu alxuraan la nekk ca Louga fan yële ci ginnaaw bi ma nekkee congé invité na ma ma dem ba ci daaraam euh, ñu toog fa diggante tàkkusaan ba timis di waxtaan ci Sénégal ak ni muy doxee muy góor gu am vision ci ci Sénégal ci àdduna bi am culture trop trop mais également nekk koo xam ne. dafa am courage trop ci ay idée parfois ma ne ko euh, courage bi nga am man mi nga xam ne maay liggéey ci télé ak rajo euh, aw ma ko mais ñu ngi koy ziar bu baax moom euh, sëñ Momar Diagne moom di ko ñaan moo xale ca daara ja bu ñu fàtte mukk ci ci ñaan Jamil attends attends avant avant may ñëw ci loolu parce que su ma nuyoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nii ma jàkkaarloo il faut ma xool également ñi nga xam ne comme ni ñu ko defee bés bu nekk ñoom ñoo njëkk euh, ci live bi lee bokk na ci Mamor mbay Mamor moom mën naa euh, chaque jour rek avant may tijji sax ma commencé ko duy parce que moom bés bu ne mi ngi ci mi ngi ci live bi Mamor ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar bu baax Alioune Bey mu ne defar leen son bi balaa Moustapha di commencé Fatou loolu waroon naa la ko wax balaa may commencé euh, Aliou Bey moo ko wax Modou Kara Gamou mu ne bonjour Moustapha sama soppe ziar naa la man tey maa ngi lay bu baax a baax Modou Kara. Euh, di ziar euh, Serigne Diop mi mu ne Hadj Moustapha euh, da ngaa leer sax hmm, ah je sais pas xëy na caméra yi rek ak lumière bi kii taal sama kaw Jamil moom leen war na jël congé comme yow waaw man day congé moom gëjoon naa ko jël mais ren jii li ma ci dal nee naa say boo waawal fajiri pare rek na chaque année incha allah rek bu ñu ko fekkee congé mënta ñàkk Aliou Seck ziar naa la Moustapha bëgg naa la seet si mu ne. bëgg naa leen seet si euh, mësuma gis kenn ci yéen Aliou Seck ñu ngi fii ci ci Walfadjri rek douze rue du front de terre boo fi ñëwee waxtu boo fi ñëw di nga fi fekk euh, gars yi ko fi soxla di ko gis incha allah amul protocole. Fatoumata Cissé maa ngi lay euh, ziar bu baax Cissé mu ne wallaahi dëgg rek moo tax ma bëgg la man tamit euh, sopp naa la trop Fatoumata te xaw ma la mosuma la gis Baye Modou Maam Mor Baye wax naa ko sànq euh, bàcc mbeng ñu ngi koy ziar bu baax Ndiir Bois xanaa moom menuisier la ziar naa la yow tamit mu ne salut Walf ñu ngi lay ziar Moustapha Sall mu ne jaa ngeen jëf Moustapha yow tamit jërë nga jëf juuf mu ne salaam Moustapha ñu ngi lay delloo nuyoo yow tamit. Sidi Sow euh, nuyu nañ ko bu baax a baax mu ne Moustapha dama la bëgg ba gëmewuma ba gëmewuma ko euh, Sidi euh, Oustaz Aliou Sall moo ko doon wax koo bëgg rek bëgg na la ah, wax dëgg yàlla jàppal na cofeel bi nga am ci ñun moom lañ am ci yow yàlla bu sa yaakaar tas mukk ci li tax nga am cofeel boobu la ci ñun ma jigéen Diouf Fatou mbaa taxawul waaw kon baax ma jigéen Diouf parce que waa ji teel na la avertir tey ma jigéen Diouf mu ne salaam grand euh, booy demati vacances il te faudra notre euh, approbation incha allah <laughs> tu nous as beaucoup ma jigéen kon li ma metti su ma rek su ma rek dem <laughs> congé il ma tàggu leen nee na ban jox ma ndigal may may soog a dem mais bon euh, xam nga nag Sénégal dañoo jëm ci ay xam naa naa ci ñëwaat léegi. ci ay échéances yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne échéance yu am solo la moo tax boo gisee ñu bari ci ñun euh, muy ci journaliste en tout cas dañuy préférer jël congé à l'avance pour que les mois qui qui viennent ñu mën a am jotu euh, mën a taxal dëgg-dëgg ci nga xam ne moom mooy moom mooy xew ci réew parce que mënta ñàkk euh, soxna Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax Moussa Touré moom it ziar nañ ko bu baax moom Moussa taxal ma couper son bii nii parce que son yu bari yi moom du sotti ñu ngi koy ziar baax moom it. Euh, bu Ndiaye mu ne Moustapha xanaa dangay ngay like je sais pas xaw lu mu bëgg wax foofu loolu mooy lan Fatou hmm? je sais pas euh, bon Ibra Bamou Moustapha content de man tamit bég naa trop euh, ziar la Momar Thiam Momar Thiam également Mam Mor Gueye ñu ngi koy nuyu di ko ziar Abdou Ndiaye également mu ne. Euh, njóobeen euh, bëgg ceeb waaw xaw ma njóobeen xaw ma ceeb moom bëgg naa ko loolu moom euh, lu leer la am Fatou yi également ñu ngi koy nuyu Maimouna Dieng Maimouna moom commencé naa ko xàmme léegi parce que saa su ne dama koy gis ci ci live xam nga li moo neex ci ci ci ci façon bii ñuy defee live day dem ba ñi nga xam ne ñoom nga ci gis yëpp da nga leen miin pratiquement il faut partie de la famille te loolu lu am solo la pour ñun euh, euh, Fatoumata si wax naa ko sànq Lamine Anne également euh, Khadim Rassoul sa turu màgg na lool Moustapha Gaawal maa ngi ci de Modou Kara waxoon naa ko sànq ñu koy ziar voilà Birahim Diagne fi mu toll nii war nañoo toll ci. mille cinq cent personnes maanaam junni ak juróomi téeméeri doomu aadama yoo xam ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ànd ak ñun di waxtaan euh, alors que bi ñu commencé ak léegi ci juróomi nit la war a toll xam nga loolu euh, du euh, ni ñu koy waxee sax kanam bu leer wala wax ju neex moo tax nit ñi ñëw fi mais c'est parce que dañu yaakaar simplement que ni échange bi ñuy am ak ñoom. Euh, amal na leen jëriñ te loolu euh, dinaa ko wax waxati ko lu rëy rëy ci man la lu rëy rëy rëy ci équipe bi nga xam ne moom lay àndal te li Youssou Ndour waxoon rek suñu mënoon a jox ku nekk loxo ñoom ñi ñëpp lañuy dem ku ci nekk ñu jox la loxo ne la ñu ngi lay jaajëfal ci ànd bi ngay ànd ak Walfadjri ndax waxoon naa leen fii. que ni lu ñu gën a bari ay abonnés sur la chaine YouTube de Walfadjri di ngeen gis yu bëree bëri yoo xam ne mënuñu ko def ci télé bi pour x raison fii lañ koy defee te dinañu jox également liberté wu euh, yi nga xam ne moom mooy am ay tolof tolof parfois ci la gestion de la télévision et de la radio comme li ñu xee daloon mars deux mille vingt et un euh, mu bañ ñoo dalit wala bu ñu dee dalit dina fekk ñu am foo xam ne. on a suffisamment de d'internautes yoo xam ne mën nañoo ànd foofu ak ñoom di def euh, suñu suñu liggéey euh, moo tax boobu ba léegi man bu ma commencé man ak Pape Makhtar gis nga masse bu mu ngi ci euh, Mame Birame Wàcc également mais également Pape Ndiaye te yeneen ak yeneen incha allah bëgg nañ ko di ko ci di ko ci dolli Jamil fu ñu toll ci kii bi blessure Sadio Mané bi ah ba léegi leeragul alors boobu nag defe naa bés li ñu waroon def mooy bés bu nekk ñu def loolu ñu wax bulletin de santé wax gars yi ne leen Sadio Mané waaw comme Covid bi ak exactement Fap dañu war a def comme Covid bi bés bu nekk ñu wax leen ne leen tànk bi fii la toll ah man koy teg ma koy mën na cee dox mën na cee daw parce que nag fi mu nekk nii li waa waxoon réew mi daanaka kenn toogatul moo lii rek suba ci presse bi ñu ne am na ay imam yu nekk fële ca defe naa mooy dëkk moom dëkk moom. bambali wàcce ay kaamil euh, ngir yàlla taxawu tànk may ne lool de am na solo waaye suñ ma ko indiloon ma yóbbu ko ci benn village bu tudd Barale nekk fii ci Louga defe naa ne une léegi mu commencé daw de donc en tout cas lu am solo la liir naa également le ministre Ablaye Sow mu wax lu am solo parce que daf ne nañu wax dëgg sénégalais yi Sadio dafa blessé loolu moom mooy li dëgg dañ koy wax sénégalais mu leer que ni Sadio il y a des possibilités mu bañ a bokk ci coupe du monde bi comme c'est possible bokk ci mais suñ fi nekkee naan ñi ngi xaar ak ñi ngi yaakaar ak affaire yooyu ñuy dundee yaakaar ba ca bés ba euh, ñu ne Sadio Mané du mën a bokk bon man euh, je ne suis pas comme certains journalistes sportifs yi wax ne waruñu ko woon man dama gëm ne dañ ko war a sélectionné dañ ko war a sélectionné espérant comme li ñu amoon ak Ismaïla Sarr ci kii bi euh, ci CAN bi match yi avancé Sénégal yàlla na ko yàlla def mu sori ci compétition bi ñu soree xëy na euh, Sadio mën a dabe bu fekkee ne mënul commencé ak ak ñun mais en tout cas bu li tax ma ma ciy taxaw d'ailleurs jamil bu ma liiree euh, waa ji mu ne ministre Abdoulaye Sow mu ne il faut dire la vérité aux Sénégalais Sadio dafa blessé ma gis benn waaye bu neex bindal ko ci suuf ne ko il faut dire la vérité aux Sénégalais Macky Sall mënut a bokk 2024 <laughs> ma ne ko vérité pour vérité rek loolu moom mooy liy dëgg ah bu ñu ko jaaree ci li ñu war a ci li ci liy dëgg rek mooy élection présidentielle deux mille vingt quatre Macky Sall munu cee bokk te waru cee bokk te loolu du waxu Moustapha Diop du waxu waa jooju bindal ko ministre Abdoulaye Sow du waxu également ñi nga xam ne ñoom ñooy ay chroniqueur rek ni ci télévision xam nga waxu kan la waxu président Macky Sall moom ci boppam moo wax ne wax ko ba pare bind ko ne. élection présidentielle 2019 bu ma Sénégalais yi wóoloo ba fal ma su ma gañee jeexal naa ci 2024 bokkuma ci donc il faut dire la vérité aux Sénégalais monsieur le ministre Abdoulaye Sow ne leen Sadio Mané dafa blessé waaye il faut dire la vérité aux Sénégalais également ne leen président Macky Sall bokkul ci élection 2024 pourquoi parce que moom moo waxoon ne bokkul yeneen yëpp naan ay constitution beeg euh, deuxième quinquennat ak ay tappale rek la tappale rek la waxu kilifa moom waxu kilifa la rek ah, moom moo wax ne bokkul bokkul ñu seeti leneen donc mi ngi noonu euh, dinaa ñëwaat léegi sax ak élection présidentielle 2024 parce que comme ni ñu ko tànnee euh, tey comme sujet mooy 2024 tàmbali na déjà moo tax ma ne 2024 c'est maintenant mais dama bëggoon a taxaw très rapidement ci li nga xam ne moo concerné taskatu xibaaru Sénégal yépp mais du mbiru taskatu xibaar rek parce que dégg naa ñu bari ñu wax ne wéy Pape Alé Niang dañ ko jàpp journaliste yëpp dañoo war a taxaw comme bu fekkoon dañoo jàpp benn médecin médecin bi dañuy taxaw bu jàppoon benn kii ñëpp dañuy taxaw donc moom dañ ko war a taxawu ndax ci ñun la bokk ma ne d'accord sur le principe je suis d'accord mais li tax ñu gën a war a taxawu Pape Alé Niang ba mu génn fee mu nekk moo di ne man dama gëm ne wax naa ko fii keroog li ñu koy jàppee teguñu ko fenn man loolu laa gëm muy benn ñaareel bi moo di ne euh, ni ñu ko euh, jàppee noonu ba. teg ko ci bërëb ne ko fii doo fi jóg tant que lijjantiwu say mbir ba pare ku ci nekk ci ñun waxuma quand je dis ku ci nekk ci da nga yaakaar ne journaliste rek lay mais ku ci nekk ci sénégalais yi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ci réew mi ñu yëkkati seen kàddu di wax ak fu ñu ko mënti waxee nag ne leen leer de loolu mën naa dal ci ñoom faatu année yi ñu génn gis nga imaam yu bari ci seen xutba lañ leen jàppe def ci kaso am na ay sénégalais yu bari ci seen page Facebook la ñu bind ñu jàpp def ci kaso bi am na ay sénégalais yu bari si youtube la ñu toog comme ni ñu toogee fii di def live ñu jàpp def ci kaso bi donc li dal Pape Alé Niang il faut que sénégalais bu ci nekk gëm ne euh, nu ñu koy waxee du mbiru Pape Alé Niang mais mbiru population wu Sénégal bépp la te su ma déggee yenn ci journalistes yi ñu xaw a sceptique ci combat bi nga xam ne moom la ñuy mëne en tout cas man moom laay mëne te ak ñeneen ak ñeneen pour que Pape Alé génn foofu mu nekk dama naan quelque part ils n'ont pas très bien compris qui se passe Fatou est-ce xam nga ne euh, charte yi nga xam ne moom la procureur teg pour yóbbu Pape Alé kaso daf ci am bu mu ci tànn sànq rek maa ngi déggaat euh, sama grand di ko wax moom Daouda Mine dafa am bu ci procureur tànn boo xam ne Jamil lu doy waar te jar na bàyyi xel xam nga dañ naan la juge bi mooy le juge d'instruction dañ naan la moom moom mooy placer nit sous mandat de dépôt ma mooy yóbbu nit prison ñu ne juge boobu kenn du ko digal lu muy def kenn du ko digal moom mooy tànn ci xelam en toute conscience mu xam ne kii ñu ko àndil lii ñu ko tegal jar na yóbbu kaso mu yóbbu kaso jar na placé sous contrôle judiciaire muy placé sous contrôle judiciaire jar na jar na jar na moom mooy décidé ma ne d'accord le juge Mamadou Seck bu bu yore deuxième cabinet fële ca kii ba moom moo ko def mais dafa am lu am solo moo di ne procureur dafa am ay loi yoo xam ne su fekkee de faat yow mi dañ lay topp yàlla bu la topp su ko procureur visé dañ ne le juge d'instruction amul pexe il est tenu de décerner le mandat de dépôt maanaam li ma bëgg a wax mooy jërul di citer ay article numéro sangam numéro sangam je dis souvent aux chroniqueurs judiciaires que ni loolu dafay jaxase ñi nga xam da nga leen déglu da leen wax ci ay wolof yu leer ñu dégg jamil su fekkee tey da am problème ak yoon comme ni ko Pape Alé Niang amee procureur dañ ne mooy avocat wu société bi maanaam ñun ñëpp procureur mooy défendre suñu intérêt ñu ne procureur moom la moom mooy maître des poursuites maanaam moom mooy toppe moom mooy toppe avocat day défendre ñu ne procureur moom mooy toppe ñu ne procureur moomu di toppe kan mooy patron ñu ne ministre de la justice il faut ñu wax ko mu simple rek ñëpp comprendre ministre de la justice kan mooy patron président de la République kon Jamil war ngaa mën a gëm ne procureur moomu am na koy jox ndigal am na patron muy benn ñu ne la procureur moomu nga xam ne moom dafa nekk ci resp si si autorité wu nit ci autorité wu nit dafa am kilifa ñu ne procureur moom su fekkee dañ la yóbbu ci juge d'instruction procureur bi def ay réquisition ñu ne am na article yoo xam ne bu ko procureur visé maanaam wax ne euh, article sangam euh, noté woon naa ko mais je pense que day grouiller nit ñi da leen da leen jaxase mais su fekkee dañ ne procureur dafa viser article sàngam ñu ne article boobu su bokkee ci li procureur visé maanaam ci lim lay toppee yow soo demee ci juge d'instruction bi le juge d'instruction et tenu bu ñu ne laa nit il est tenu mooy mayuñu ko mu tànn day def par force li nga xam ne moom la procureur bëgg moo tax keroog avocat wu Pape Alé Niang ñu wax ne euh, procureur bi euh, juge d'instruction bi mu koy décerner mandat de maanaam di ko yóbbu prison daf na ko je suis désolé mais mënuma leneen lu yóbbu la prison waaye léegi à partir de cet instant la est-ce que yow mën ngaa gëm ne le juge d'instruction il est indépendant ah moom il est indépendant mais independant am dañ koo tënk ci bu ko procureur waxee ne ko à partir de article sangam yóbbul kii mandat de dépôt moom amul beneen pexe bu dul yóbbu la mandat de dépôt li muy tekki rek ci lu simple parce que man vraiment dama bëgg mu simple ci bopp ñuy seetaan bañ xam ne Pape Alé li ko dal mën naa dal kenn ku nekk ci li lu simple mooy su gouvernement wu Sénégal décidé woon tey ne kenn ci ñun ñett ñii dafa war a fanaani kaso ñu ne procureur topp ko ci nangam ak nangam procureur bu la dee topp am na article yoo xam ne da koy viser rek soo demee ci juge d'instruction amul benn pexe bu ñu yóbbul prison amul wala boog nga am doole ju ne na ci Ousmane Sonko amoon en mars 2021 te loolu yow amoo ko Fatou amu ko man aw ma ko ñuy seet amuñu ko moo tax daal Euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy toog naan waaw man daal euh, Pape Alé lii Pape Alé laa nañ bàyyi xel ne bis bu tolof tolof bi gën a ndaw amee ci seen làmmiñ ba loolu dal leen lu de lu mel ni mën leen topp te li tax mu am solo mooy Fatou wax naa leen fii keroog ne Pape Alé li koy toppee ñu bari dañoo jàppoon ne euh, dafa am benn laay bu mu defoon wax ne dafa am un rapport interne boo xam ne gendarmerie ñoo ko def. jëme ko ci wàllu l'enquête boo xam ne mi ngi amoon ci les événements de mars 2021 bi fi soxna soo su di aji Sarr jiiñee waa ji di Ousmane Sonko ne dafa yegg ci kawam ci lu ko neexul waa gendarmerie def seen enquête ci biir am lu ñu ci yëgle lu ñu ci wax ñu ne enquête boobu moom la Pape Alé génne te waru ko woon génne moo tax ñu koy topp mais ni tax ma koy fàttali mooy avocat yi Pape ñoom ñoo dajee ak kuréel gi nga xam ne euh, taskatu xibaar yi ñoo ci nekk muy CAP con euh, coordination des associations de de la presse ba pare ñu tijjil ko ak yeneen journalistes yoo xam ne bokkuñ ci association yooyu mais ñu ñëw bokk ci benn collectif te man mi ci collectif balaa bokk gis nga bi ñu dajee ak avocat yi avocat yi dañu ne li ñuy toppee Pape ale bi mu demee ci àttekat bi tuddul benn yoon yëpp dañoo jàpp ne moo tax ñu jàpp tudd ko benn yoon loolu avocat moo ko wax tudd ko benn yoon ça veut dire que ni rapport moom jël nañ ko tege beneen bi ñu ne ñoom daal liñ liñ wax ne moom lañ koy toppee bokk na ci benn euh, message bu waa police jëloon message interne pour envoyé ko seen biir mu génnee ko muy benn te message boobu ñu waxantee dëgg euh, dana woon fànk ci réseaux sociaux yi mel ne kuy teg géej ci marché beneen bi ñu ne benn note de service boo xam ne waa sapeur pompier la woon euh, ci seen biir la war a ne mu génne ko laa même chose note de service boobu tamit boo xoolee ci réseaux sociaux yi da koy gis te yaakaaruma ne Pape Alé moo ko njëkk génne ñu ne ko également laaj nañ ko ci affaire waaye ji nga xam ne moom lañ tëjoon commissariat central te mujj faatu muy Mankabou ñu ne defoon na ci benn live laaj nañ ko ci laaj nañ ko également ci lu mu waxoon ci mbirum général Fall loolu boo ko déggee sentiment bi ngay am rek moo di ne quelque part Pape Alé Niang gaa ko jàpp ba pare yor benn torche di wër fi euh, euh, at yi ñu weesu ana lan la fi wax loo xam ne mën nañ ko cee topp te réew bu tollee foofu. man damay commencer di wax ne lii nga xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de la presse moom mi ngi commencer dee bu deewul ba pare parce que liberté d'expression ak liberté de la presse suñu ko dee wax nekkul ay textes yu ñu bind ba mu leer parce que bu dee ay ay textes c'est vrai am na ci Sénégal euh, ci suñu code pénal wala code de procédure pénale des articles liberticides yoo xam ne tey journaliste bu ñu ko gàll sa kaw nga dem prison yooyu am na mais lu texte yi baax baax sax li nga xam ne dëgg-dëgg mooy tax nit ku nekk am sentiment wu ne respecté nañ liberté d'expression ci réew mi respecté nañ liberté euh, de la presse ci réew mi mooy doomu aadama bu nekk waxuma si journaliste de mais doomu aadama bu nekk même kiy wax kiy woote rajo di wax wax sa xalaat mu am sentiment wu ne moom lii muy wax nii tant que waxu ci loo xam ne dafa nekk euh, aw saaga walla Euh, xawi suturéwu doomu aadama wala yu mel noonu dara du ko ci fekk c'est-à-dire que wax sa xalaat en toute liberté loolu mooy liberté d'expression mais su fekkee ne danga am sentiment yow journaliste bi même dans les pays de guerre journalistes yi souvent ay lois yu baax moo am ci réew yooyu mais lu tax souvent ñu naan la liberté de presse est menacée dans ces pays là dafa fekk ne journaliste bi nga xam ne mooy liggéey ci réew yooyu am na yoo xam ne su ko waxee dara mën na ko cee fekk tey Sénégal gii journaliste bu ko wax ak bu ko waxul ñëpp ñi nga xam ne ñooy wax ci rajo ak télé ñoom ñëpp xam nañ ne tey li nga toog di wax nii am na lu la ci mën a fekk soit nga wax loo xam ne neexul nguur wala nguur yaakaar ne da koy yàqal dara mu jaar la fi mu jaarale Pape Alé Niang wala nga wax loo xam ne neexul beneen euh, leader wala beneen euh, nit ku am mbooloo mu nekk leader politique opposition comme pouvoir mu nekk ab sëriñ wala mu nekk ab homme d'affaires wala leneen mais en nga wax koo xam ne moom moo la ëpp doole wala moo la ëpp mbooloo te li nga wax ci moom wala li nga bind ci moom même bu dee dëgg neexu ko kooku mën naa dal sa kaw loolu réalité wu Sénégal la à partir de cet instant la dañuy remetre en cause li nga xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de la presse te boo ko remettre en cause fan yëpp maa ngi koy wax. mooy man nga contrôler li nga xam ne moom laay woowee les médias classiques mooy télévision yi rajo yi journaux yi parce que ñooñu dafa am benn cahier de charge boo xam ne je prends l'exemple de Walfadjri bi ñu koy jox licence pour mu nekk télévision boo xam ne nit ñi mën nañ koo seetaan fii ci Sénégal ki nga xam ne moo ko jiite dafay dem ñu jox ko benn cahier de charge mu signé ko cahier de charge boobu daf koy wax ne que da nga am obligation respecter nangam ak nangam ak nangam ak nangam. yaa ngi dégg donc Walfadjri googu boo fa nekkee yow mu neex la mu naqari la lépp loo xam ne engagement Walfadjri la ak état wu Sénégal ci lu mu war a respecté ci kay de charge bi nga xam ne moom la signé da nga koy respecté soo ko respecté wul CNRA mi ngi taxaw et d'ailleurs sax une petite parenthèse dafa mel ne suñu ministre bu bees bi ministre de la communication xëy na mu tudd maître Moussa Bocar Thiam moom dañ koo fal ministre. mu def la Youssou Ndour waxoon ne Jumbóori dañ ko fal buur mu jël yatam di dóor ko deful dara c'est-à-dire que moom dañ ko fal ministre au lieu que mu xam lan mooy liggéeyu ministre moom mu bëgg a def liggéeyu CNRA dem ci émission rajo yi naan on va sanctionner danañ def lii dinañ def la nangam ak nangam damay fàttali rek benn ministre bu ñu fi masoon a woo ministre de la communication ndeysaan woote fii ne day tëj Walfadjri ma ne leen paas leen ma ko ma wax ak moom téléphone. <laughs> bu fekkee ne ministre moom day toogam neex rek mu ñëw ne day tëj Walfadjri passe leen ma ko ma wax ak moom téléphone mais bon mais li am solo mooy di ne donc dañuy am obligation wu respecter li nga xam ne mooy cahier de charge télé boo nga xam ne moom la signé soo demee 2S euh, euh, dafa am cahier de charge bu ñu signé war ko respecter soo demee seen TV dafa am cahier de charge bu ñu signé war ko respecte soo demee 7TV soo demee TFM soo demee IT ITV foo mënti dem foo mënti dem télévision boo gis ak journal boo gis dafa am loo xam ne ay charte la yoo xam ne moo ko tënk am na foo xam ne su bëggee dem dañ naan niib jàpp ci loxoom ne ko lii da ngay violer cahier de charge bi nga xam ne moom nga signé woon te boobu bés bu euh, euh, mo jamono bu ne dangay dégg ñu mel ne waa CNRA di ñu ko fàttali. mais su fekkee ne ñooñu nga xam ne am na lu ñu war a respecté te di ko respecté nag ak lu ñu mën parce que wax naa ko démb rek sama benn collègue fii ma ne ko coow li bari na lool mais man dégg benn journaliste sénégalais bu jël aw saaga jëmale ko ci président Macky Sall dégg ko mën nañ ko critiquer de manière très très sévère mais dans le respect de l' institution bi nga xam ne moom la président Macky Sall incarné muy président de la République du Sénégal mais su fekkee ne journaliste nga xam ne comme man ak ñeneen ñu baree bari ci chaîne de télé yi ak rajo yi dañoo am su wu di respecter président Macky Sall di respecter institution bi nga xam ne moom la incarné kooku su demee ba mënutul wax parce que dafa yaakaar ne su waxee li dal Pape Alé Niang mën na koo dal wala boog su waxee mën nañ koo teg ay bunduxataal mu ne léegi man duutuma wax xam nga lan lay jur dafay am ku koy wuutu ki koy wuutu mooy kan mooy sénégalais bi nga xam ne dafa nekk États-Unis wala kanada wala France wala même fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru wala ci yeneen dëkk yi ci Sénégal am benn chaîne YouTube am wala benn kii am comment est-ce qu'on benn page Facebook am wala yu mel noonu wala sax nekk ci groupe WhatsApp nga xam ne moom amul benn cahier de charge bi mu signé kenn kooku Jamil bu dee wax day wax lu neex di wax lu naqari di wax xamul lan mooy limitam xamul parce que amul amul ku muy ku muy rendre compte en fait moo tax ngay dégg ñu naan la yenn librairie yi dañuy dem bay saaga président la république. ñenn ñi dem bay saaga soxnaam xam nga ne doo dégg benn journaliste sénégalais mu de mu yëkkati baat bi gën a ñagas di ko jëmale ci soxna njiitu réew mi wala mu yëkkati baat bi gën a ñagas di ci président de la république xam que dañu am responsabilité boo xam ne déjà nos règles d'éthique et de déontologie permettre ñu ko mais également euh, fi nga xam ne fa la ñuy waxee muy Walfadjri gi comme man fi ma nekk duñ ma fi may mukk may wax wax yu mel noonu di ko jëmale ci président de la république parce que tëjub kër gi mën na cee ak mais ki nga xam ne dafa yor chaîne YouTube am nag ah kooku amul compte bu muy rendre kenn moo tax def attention que ni liberté de presse la liberté d'expression buñ dee xeex pour ñu sàmm ko c'est pas pour les beaux yeux des journalistes mais c'est pour dañoo gëm ne loolu mooy njariñu askanu Sénégal parce que jëmil pour avancer un ñu wax ko ñu bañ koo wax moo di ne jamono ji ñu toll sénégalais yi ne ci biir réew mi ak yi ne ci bitim réew sénégalais yu góor yi ak yu jigéen yi sénégalais yu màggat yi ak sénégalais yi nekk xale sénégalais yi nga xam ne dañoo yor soxna yor ak sénégalais koo ci laaj am na benn type bu ne ci moom parce que ñun ñëpp dañoo gëm ne fii jamono jii may waxee yow nii ba ba février deux mille vingt quatre lu nekk mën naa xew ci réew mi lu nekk mën naa xew ci réew te loolu jërul di ko jiiñ kenn ak kenn jërul jàng science politique wala nga jàng sociologie wala nga jàng leneen pour xam lan moo ko waral lenn doon moo tax sénégalais am crainte tey mooy dañu am occasion pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu jëm benn présidentielle boo xam ne du ñu folli dañuy fal en 2000 dañoo folli Abdou Diouf jaar fa falaale Ablaye Wade en 2012 dañoo folli Macky jaar fa falaale dañoo folli Ablaye Wade jaar fa falaale président Macky Sall en 2024 Fatou du ñu soxla folli kenn dañuy tànn ne ana moo gën ci réew mi ñu dénk ko réew mi te loolu dafa am solo te li tax sénégalais yu bari di am crainte di am euh, tiit moo di ne dañu gëmoon ñun ñëpp ak commencer par ñi bokk APR ñi gën a jege président Macky Sall dañoo gëmoon ñun ñëpp en 2012 que ni élection présidentielle 2012 Macky Sall gagné na ko 2019 mën naa bokk et 2024 Sénégal day am beneen président ñëpp ñoo lañ gëmoon président Macky wax ko fu ne ne 2024 da ngeen di tànn beneen président mën naa tudd Jamil mën naa tudd Fatou mais du tudd Macky Sall. ñu ne ko lu tax mu ne parce que man maa def ci constitution wu Sénégal ne damaa bëgg li fi xew a 2012 ba ay nit dee fi dootul xew ci réewum Sénégal ñu ne ko nooy def mu ne damay bind constitution bu bees ba pare verrouillé ko ne kenn mënatul def ñaari mandat yu tegaloo ci biir réew mi. yenn borom xam-xam yi nga xam ne parfois seen xam-xam dafay yóbbu ci ak fumiste wala ak hypocrisie ba ñuy wax loo xam ne kenn waxloowu leen ko daal di commencé naan est-ce que mandat ba mu defoon muy mandat wu sept ce que ci lay bokk ab déet président Macky Sall taxaw ñëpp di ko xool mu ne man mënuma comprendre man président Macky Sall lan moo tax nit ñi di débat ci troisième mandat man maa ne 2012 fal ngeen ma ba 2019. ma ne woon dinaa wàññi mais wàññiwu ma 2019 ba gi nii maa ngi dem di wuti su yàlla nangoo ak ci Sénégal yi bëgg ma nekkaat seen président bu ñu ma falee vingt 2024 man pare naa ci du ma bokkati wax ji jeexul jamono di dox di dox ba jamono jii ñu nekk li nga xam ne moo war a dundal démocratie ci lañ war a nekk te gis naa ne euh, Malick Gakou ci la nekk Abdourahmane Diouf ci la nekk Ousmane Sonko ci la nekk te APR sax ci lay nekk te naa ñëw léegi wax loolu tax xam nga la mooy dundal démocratie mooy bu ñu jubee ci élection parti dañoo am euh, obligation wala coalition yi taxaw ne ñun diw mooy suñu mbër pour dem ci élection yi parce que dañu wax ne élection présidentielle dañu wax ne c'est la rencontre entre un homme et son peuple ma ne yàlla na homme boobu am profil mais également am projet bu muy proposé te li nga xam ne moom laa gis ñoom grand grand parti bu Malick Gakou def ko samedi man dama jàpp ne loolu mooy samedi ou dimanche samedi samedi je ne sais dimanche dimanche dama jàpp ne loolu mooy lii dundal démocratie xam nga mooy lan mooy am nga parti leader politique nga nga woote congrès sa waa parti ñëw ne ñun dañuy tànn Malick Gakou mii ne mooy suñ candidat en 2024 ñu ne tax ngeen koy tànn ñu ne parce que am na profil bi ñu ne lan mooy profilam ñu ne nekkoon na ministre nekkoon na nekkoon na euh, conseiller bu Famara Ibrahima Sagna nekk na om d'affaires i a réussi dans les affaires et te kenn mësu koo topp ci dara ça veut dire que ni sàccul xaalisu kenn d'accord bu leen neexee mën nañ ko wax ñu ne mooy suñu candidat lan mooy seen projet ñu ne lii mooy suñu projet ci wàllu santé ci wàllu social ci leneen ak leneen ñu ne leen am ngeen ci droit démocratie noonu lay doxe k mel ne Ousmane Sonko taxaw ne man dama bëgg a nekk président wu Sénégal déclaré candidature am ñëpp di ko dégg mu ne sama parti sax dinañ def seen congrès pour confirmer que ne man maay nekk seen candidat à l' élection présidentielle ñu ne ko d' accord ñu ngi lay dégg mu ne du ma yam foofu damay wër Sénégal gox bu ne ma dem fa nemmeeku ña fa nekk wax leen ne lii laa bëgg a def ak yéen su ma nekkee président wu Sénégal loolu mooy liy dundal démocratie. ku mel ni Abdourahmane Diouf taxaw ne dama bëgg a nekk président Sénégal te lii moo tax ma bëgg koo nekk c'est ça la démocratie waa APR également ñëw taxaw ne dañuy jaay ay carte loolu ci démocratie la bokk te dañoo am droit taxaw ne dañuy jaay ay carte pour yokk suñu ay militants bu parti loolu dafa bokk ci liy dundal démocratie te c'est important pour un parti politique parce que dama gis ne depuis man bi ma demoon le congrès de l'AFP taw Moustapha Niass ba laa Wade nekk président Sénégal daanaka boobu ba léegi gisatuma parti yi ñuy def ngandi congrès yooyu PS moo ñu miinaloon ay congrès mais PS léegi moom defe naa yóbbaale ma la gën a nekk autre chose quoi mais dafa loolu gis nga euh, Jamil dafa bokk ci li dundal démocratie mais puisqu'il y a mais APR dañu am un problème parce que autant je dis que yi dañoo am droit wala boog sax obligation wu di jaay ay carte pour di yokk seen ay militants renouveler seen parti également mais dañoo am loo xam ne amuñ ci droit waa APR am na loo xam ne amuñ ci droit amuñu droit taxaw jàkkaarloog sénégalais yi ne ñu ne leen Macky sàll mooy suñu bër loolu amuñ ci droit li tax amuñ ci droit mooy li ma la wax sànq mooy président Macky Sall moom moo taxaw ne man Macky Sall man Macky Sall aw ma droit nekk président présidentiel gis nga bi mu waxee loolu ba pare ci la waa APR waroon na commencé xool ci seen biir ci seen biir ne ñun ñuy kër wax dëgg yàlla. ñu ne opposition di wax gënuñoo xam réew mi gënuñoo bëgg réew mi gënuñoo nekk ay gor dàquñoo ñoo jàng lan moo fi jar kon ñu mooy ci président Macky Sall ne ko budul yow du keneen non dañu war a jaay ay carte ba pare tànn kenn ci seen biir xaw ma kum ciy doon bu leen neexee sax na nekk euh, je mbay pas walla Mbaye Ndiaye wala euh, waaw Mbaye Ndiaye kay wala keneen ku leen neex wala Mame mbay Niang wala Abdou mbaw kenn ku leen neex rek ku leen neex ñoom waa APR ne kii mooy suñu kandidaa kii lañ bëgg bu ñu demee élection présidentielle mu wuutu président Macky Sall ci réew mi bu leen neexee sax ne da ngeen woo Sénégalais ne leen ñun kët am nañ président boo xam ne man sama su ma bokkoon APR ñu xam am nañ président boo xam ne am na bilan bu mu def ci réew bi waa APR lay wax de parce que boo ñëwee ci réew taax yi comme Dakar gi ñu nekk bu leen neexee ne def na fi tali def na fiy pont def na fiy nangam ak nangam su leen neexee ne ba mu nekkee président. moom président Macky Sall wàññi woon na taxes yi nga xam ne moom lañu doon teg ci salaire yi ba liggéeykat yëpp a commencer par man mii yëgoon nañ ne seen salaire yi yokk na bu leen neexee wax ne moom président Macky Sall ci wàllu sociale def na nangam ak nangam projet boobu nu ñu ko tuddee bi ñuy yóbbate xaalis bi laa xaw bi ñu yónnee xaalis xaw ma nu tudd boobu am na bu ñuy yónnee xaalis rek. Euh, dina dina ñëw après président plan Sésame bu Macky Sall moo koy moo koy def mais en tout cas euh, programme la ci wàllu social. bu leen neexee ne président Macky Sall que bi mu jiitee Sénégal le programme Puma fexe na ba ay yoon am ci yenn dëkku àll yi ay forage bu leen neexee ne tabax na ay l'hôpital nangam ak nangam waaye comme léegi nag apart partir de deux mille vingt quatre mënatul nekk président ñun dañoo bëgg sénégalais yi Abdou Mbow mii wala Mame Mbaye Niang wala Mbaye mi wala bu leen neexee sax ne Mariam Faye Sall mii dañoo bëgg mu remplacer Macky Sall su ko defee projet yi mu amoon moom mu yeggale ko loolu mooy démocratie loolu mooy démocratie su ko defee sénégalais yi taxaw daan ne ah Ousmane Sonko taxaw na Malick Gakou taxaw Abdourahmane Diouf taxaw xëy na Khalifa Sall dina taxaw xëy na Karim dina taxaw xëy na keneen ku ma xamul dina taxaw waaye waa APR tamit kii taxaw na ne mooy seen candidat su ko neexee sax. président Macky Sall ànd ak moom di battre campagne bañ xam ne mooy candidat sénégal yi tànn en toute liberté loolu gis nga loolu jami ku la ko wax mooy jàmm réew mi ku la ko waxul mooy jàmm réew mi parce que dégg naa imam euh, bu baax boobu ja Touba imam Serigne Mor mbay ku baax ndeysaan te ñeme dëgg mu wax ne bu ñu yaakaaree ne Sénégal gii président Macky Sall dina fi déclarer candidature am ne damay bokk élection présidentielle te dara du xew dañuy nax suñ bopp. mu ne bu ñu ko yaakaaree dañuy nax suñu bopp parce que bul fàtte ne en 2012 2011 2012 bi Abdoulaye Wade taxawee ne damay déclarer sama candidature nekkaat président wu Sénégal ba pare yokkal ci ne waa parteem su ngeen demee sax ñu ne leen président ma ma Abdoulaye Wade moo waxoon ne mënta nekk candidat tey bëgg a nekk candidat ngeen ne leen maa waxoon waxet mais coow loolu xam nga ñaata bakkan la jural Sénégal fukk ak ñeent au moins au moins faatu nañ ci. te sax am na ñoo xam ne nee na ñun xamuñu leen parce que comptabiliser wuñu leen mais faatu nañ ci ñu bëree bëri ñàkk seen alal réew mi demul réew mi dikkul lan la jur ñu dem élection président Ablaye Wade daanu nga yaakaar ne Jamil li Sénégalais yi lankoon ne duñ ko may Ablaye Wade en mille 2012 dinañ ko nangu dinañ ko nangoo may président Macky Sall en 2024 voilà hmm? parce que Ablaye Wade moo doon président bi nga xam ne ci président wu Sénégal yëpp moom moo ci amoon lenn. Sénégalais yu bëri dañoo amoon sentiment wu ne Abdoulaye Wade moom nekk di mu nekk président wu Sénégal da koo mérito kenn may ko ko da koo xeex parce que vingt six ans d' opposition la def yenn saa yi mu dugg yenn saa yi mu génn naa nga mën a mais en tout cas li nga un opposant war a def lépp pour nekk un président def na ko Sénégalais yi moment bu moment yi Abdoulaye Wade nekk pouvoir Sénégal bi rek da nga da nga ne Abdoulaye Wade bi moom dafa mbir li nekk président Sénégal ba moom ci boppam wax dafa gëmoon ne pouvoir bi mu yor moom moo ko xeexal boppam ba yoroo ko boppam moo tax mu daan taxaw di défier opposition naa la bu ngeen bëggee marche génn leen lu nekk def na ko parce que dafa gëmoon ne pouvoir boobu moom kenn mayu ko ko moom moo ko xeex moo ko ñaq mais Macky Sall 2008 2009 la génn APR dàqante gars yi course de vitesse la moom deful course de fond course de vitesse la ko def 2012 mu nekk président Sénégal mais kooku. yàlla teraanga boobu bu yàlla defal ko defalu ko keneen ci réew mi defalu ko keneen ci réew mi parce que moment boobu muy daaneel ab lay Wade amoon na candidat yoo xam ne ba ñuy nekk ba ñuy politique moom Macky Sall ma nga ma nga yor cartable am di jàngi école primaire te nekkoon nañ candidat moom ki mu daaneel moom Macky wax na ne lépp lu mu xam ci politique kook moo ko xamal nga xam ne kon mbiru yàlla yàlla teral na ko te bi ko yàlla teralee rek li mu war a terale Sénégalais yi mooy rek tànn kenn ci waa APR bu ko neexee sax mu ñëw tànn ma ne moom mooy nekk suñu candidat en 2024 ne kii moom laa wóolu moom la suñu parti wóolu pour mu yeggalee li nga xam ne man maa moom laa commencé ci réew mi su ko defee ñoom Malick Gakou ñoom Ousmane Sonko ñoom euh, euh, Abdourahmane Diouf parce que ñooñu laa gis ci ci suba ñu ñu def seen ay photo ne ñoom déclaré seen candidature ñooñu tamit ñëw taxaw ne li fi Macky Sall def fukki at ñaari mu jiite Sénégal yëpp dara baaxu ci ñu dañu bu ñu nekkee président du am continuité mais day am rupture ñu indi lii ak lii ak lii Sénégal yi tànn fal seen président c'est tout mhm. ñeme nañ ah intéressant Fatou gis nga ñu bari dañuy wax ne APR kenn du yëngu mais naa la xamal lenn de gis nga bu ñu duggee ci janvier 2023 Macky Sall dina leen létt mbaamu mu leen soit mu déclarer candidature ne day nekk candidat wala en tout cas mu xaar ba vers décembre deux mille vingt trois bañ ne cat la mu ne day nekk candidat su boobaa aussi pendant cette année lu ñu gën a dem gars di gën a gëm ne day nekk candidat même su ko waxul soit donc mu wax ne day nekk candidat su ko defee di nga gis ci biir APR même ak ci biir nu ñu koy waxee sax. benn Bokk Yaakaar ñu génn ne ko d'accord ñu parce que ñun dañoo bëgg a sàmm lañ waxante woon dafa am benn lu ndaw lu xew temps yee faatu te ñu bari yaakaar ne c'est c'est fortuit c'est gratuit et man ma gëm ne lu jar a taxaw la ci wàllu lecture politique mooy Idrissa Seck dafa jékki-jékki rek woo ay ñooñam ay ñooñam ñu dajee commencé waxtaan pour redynamiser seen parti te li ma ci xam tam leer ma parce que parti boobu yàlla dafa dogal. liñ may xas ak di ma saaga yëpp bari naa ci xarit lool am na plusieurs rencontres yoo xam ne def na ko ak ay instance su parti moom Idrissa Seck mais Idrissa Seck defu ko pour wut lu neex Macky Sall de daf koo def parce que dafa gëm ne fii ak deux mille vingt trois réew mi mën naa demee nu ne qu'est-ce qui nous dit que à partir de deux mille vingt trois Idrissa Seck du taxaw ah oui de dama bëgg wuti waat Idrissa Seck nu ñu koy waxee sax plafonné wul di. amu ah am age ba ñu wax ne ku fa yegg dootoo nekk candidat Idrissa Seck amu ko il est il de l'énergie man nekk candidat même si biir APR y a des gens yoo xam ne tey amul benn garantie que ne bu ëllëgee ñu taxaw ne ñu dañoo bëgg parce que difficulté bi mooy su président Macky Sall waxul gars yi wax à sa place te su waxee féewuloo bi dina commencer parce que moom dafa waxoon d'ailleurs te moom boobu maa nga fa woon benn 31 décembre mu wax ne. moom président Macky Sall booba boo gisee mu naan nii oui nii non mooy parce que bëggul installé ci réew mi débat boo xam ne lépp ci élection présidentielle lay nekk alors que jotagul mais ba mu ko waxee ba léegi Jamil débat bi yëpp ci loolu la te li xew ci réew mi yëpp maa la wax lii xeex yeeg euh, dem ci yoon ak accusation yeeg nit ñuy jàpp di tëjëg journaliste yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xamul ko waral présidentielle 2024 du leneen du leneen Sénégal dañu toll ci moment te ci loolu laay jeexale ngir ñu mën a dem defi keppaar gi dañu toll ci moment boo xam ne àdduna bi ñëpp a ñëpp a jaaxle réew moo dem fi mu nekk nii ña ngay débat ña ngay réfléchir seen i assemblée ngi daje di waxtaan pour xool nan la ñuy def ba li nga xam ne mënut a ñàkk muy choc yi nga xam ne mooy dal ci réew yi ñu ñu ñu amortir ko moo tax le président de la république jël fi ay décision pour wàññi location pour wàññi njëgu ni ñu koy waxee njëgu dund gi mais débat boobu ni ñu ko waroon a poser au sein de la société boobu waxtaan ci ba commerçant bi kii luy këram comprendre ne fii bu ñu fi jaarul réew mi ci guuta la jëm parce que nit ñi mënuñoo kon ne di jënd njëg yi ñuy jënd mënuñoo kon ne di fay location bi ñuy fay waxtaan boobu duñ ko def dañuy daje pale ak quelque ñu tudde seen bopp ay association de consommateurs ñu ko tudde seen boobu laa wax ak quelques commerçants gis naa benn waaye seen TV laa ko seetaane mu ne ñoom Euh, euh, ceeb la ñuy lañ wax ne moom la ñuy wàññi ak suukar ak yooyu alors que kañ yóbbu woon palais mu représenté leen pour wax seen tur greffage lay jaay <laughs> donc réew mi loolu moo waroon nekk débat bi nga xam ne même li président Macky defoon ca corona mënoon na ko defaat ci biir même les les leaders de l'opposition war mënoon na leen a consulter ne leen lii de dal ci réew yi du bàyyi suñu réew te effort yi nga xam ne gouver parce que gouvernement Macky Sall def na ay effort yu bëree bëree bëri pour yi bañ a àgg ci yenn coûts yi mais effort yooyu doyul li tax doyul mooy ba léegi soo demee ci marché bi nit ñi am nañ problème pour jënd njëg njëg pour jënd njëg yi nga xam ne moom la ñuy pratiquer mais loolu société bi ko war na waxtaane ku nekk comprendre lan mooy idée bi ne idée wu wàññi bi du politique du wut ay militant du wut ay du dara mais dañ ko bu ñu fa jaaru réew mi jëm ci guuta parce que bul fàtte les de la faim yi nga xam ne moo fi amoon en juin 2011 ba daanaka pouvoir u Ablaye Wade loolu moo ko yóbbaale te ces émeutes là bu ñu dajewul waxtaan ci njëkk yi njëkk yi ñuy jaaye coow dina am te li ma gis diggante démb ak tey ñu koy defee ministère di commerce di ko defee du lool moo koy réglé dem ci marché bi di nangu marchandise yu jàmbur yi parce que dañoo bañ ne duñ wàññi du loolu moo koy réglé waxtaan wu yaatoo yaat la waroon laaj mais malheureusement ñun suñu waxtaan fi mu nekk nii li ma ci gën a naqari mooy dangay ngay suñu chaîne de télévision yi. gis ci ay nit yu toog yoo xam ne àdduna mënoon naa dox ba jeex bu ñu toog mukk di wax mbooloo di leen déglu ñu teg leen ci ay télé ak rajo ñu ne fa naan diwa yàkkataan diw ba mu ko yàkkataanee nii la ko def nii lañ leen def lii lañ doon def ñun lool la ñuy waxtaane du matin au soir ba ngoon jot ñu fay télé yi dem tëddi bu subaa ñu taxaw naan njëgi dafa cher mais njëgi dafa cher nañu waxtaanee yu mel noonu nañu waxtaanee ces débats de fond là tey gis naa benn journal bu ko bind am xëy ci réew mi ni mu poser problème mais yooyu sujet yi ko war a waxtaanee Jamil est-ce que seetlu nga ne depuis quelques semaines Sénégal da nga fiy dégg loo xam ne man du ma ne mësta am mais li ma ko dégg bariwul mooy li ñu tuddee ay attaque arme ci biir Ndakaaru bëccëgu dara kàmm fii ci jam ñaajo démb nee nañ gendarme yi dóor nañ fi nit bal mu dee jam ñaajo parce que dañu fa attaqué ay nit ak ay arme euh, dóorante ay bal ak gendarme yi mais loolu waxtaane wuñ ko ci réew mi presque dañ ko bind rek après ñu jàll ci leneen oui la même journée à Mbao ñu attaqué fa benn euh, multiservice ak benn xawma lan Auchan benn magasin wu Auchan ba jeeg 4 heures du matin affaire yooyu sax Mbao ay 4 heures du matin lañ ma wax keroog fii boobu ñëwaguma congé fii laa liiré ñu ne fii ci wetu kër président Macky Sall am na ñu fa jàppoon parce que dañu doon yoroon ay ay ay ay fetal di dóor di dóorante mais yooyu débat ñu war a interpeller ñëpp pour ñu waxtaane ko pour xool est-ce que amul luy commencer di xew suñu réew mi te daaw fi xew lan moo ko jur ñu trouver ci ay solution mais malheureusement ñun li nga xam ne moom la ñu bëgg a trouver solution mooy ay question viol boo xam ne ca deux mille vingt et un la ne moom la xewoon ba deux mille vingt deux kenn mënu koo te kenn du ko lijjanti way te ko lijjanti yu mel noonu hmm? ñu ngi jéggalu ñëpp <laughs> di baalu ñëpp j'espère que waxtaan wi tey am na solo en tout lii moo ci yéene bi mooy di ko partager ak yéen su ma mënoon a am euh, jot tuuti rek euh, yeggale ku mel ne euh, Ousmane bon waa ji nee na Germaine Germaine mu ne d'où viennent ces armes Germaine laaj nga lu lu jar a laaj Moustapha mu ne c'est Baba depuis Paris Baba maa ngi lay nuyu bu baax a baax. mi ngi noonu euh, xam naa ne message man su ma dee lii ci machine bi day jafe man parce que bët yi dafa commencé di truc mais bon en tout cas ñu ngi leen gërëm ñoom ñëpp Fatou tolloon nañ ci mille deux cent vingt six personnes yoo xam ne ci li may liir ni ah cinq mille quatre cent ñoo àndoon di ñu seetaan tey ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen jaajafal di leen jox daje bu neexee yàlla bu ci kanamee tuuti ci keppaar gi bu talaata incha allah ñu ñëwaat toogaat fii ci suñu bureau bi di waxtaanee ak yéen ci yeneen sujet d'actualité yàlla na yàlla def balañ cee egg ñu naan Pape Alé ñaa génn na wala boog bés sàng c'est ça qu'il fait. kon mbaa déconnecté woo ma fii ok super. kese de il est quoi 15 heures passé tàmbali kon ni ñu koy defee talaata bu jot ci waxtu wi ànd ak ñi nga xam ne ñooy ay euh, soppey Walfadjri di partager ak ñoom lenn ci jàngat yoo xam ne dañ koy am ci actualité mu réewum Sénégal ak ni muy doxe euh, Fatou maa ngi lay nuyu bu baax yow mi nga xam ne yaa ne ci xarale gi du nuyu Jamil mais tey waxtaan dañuy commencer euh, nuyu euh, suñu ay mbokk yoo xam ne ay soppe lañu di ñu topp saa su ne euh, bokk nag ñii ne ci réew mi ñii ci bitim réew foo leen nat ci àdduna bi rek da leen fay fekk ñoo xam ne su waxtu wi jotee àllarba wala talaata léegi dañuy ànd ak ñun ci waxtaan wi lee sama xel dem ci ku mel ne ay chafal ak borom këram ñoom ña nga ca Canada ak euh, suñu jigéen bi di Fat Thiaw euh, Diène noonu la ñu nuyoo également ku mel ne Serigne Fallou Samb moom mu nga ci États-Unis moom ak euh, suñu xarit Alassane di nuyu Cheikh Ndiaye moom mi ngi fii ci Bombali Cheikh Ndiaye nag Fatou baykat la waaye bu bayee ba pare ba ñebbe ji ñor gerte gi au lieu mu dem jaay ko da koy lekk. ñu ngi koy bu baax moom seriñ seex Ndiaye di nuyu bu baax euh, euh, sëñ Mamar Diagne sëñ Mamar Diagne di suñuy wéjjur di suñu xarit nga xam ne moom jàngalekatu alxuraan la nekk ca Louga fan yële ci ginnaaw bi ma nekkee congé invité na ma ma dem ba ci daaraam euh, ñu toog fa diggante tàkkusaan ba timis di waxtaan ci Sénégal ak ni muy doxee muy góor gu am vision ci ci Sénégal ci àdduna bi am culture trop trop mais également nekk koo xam ne. dafa am courage trop ci ay idée parfois ma ne ko euh, courage bi nga am man mi nga xam ne maay liggéey ci télé ak rajo euh, aw ma ko mais ñu ngi koy ziar bu baax moom euh, sëñ Momar Diagne moom di ko ñaan moo xale yi ca daara ja bu ñu fàtte mukk ci ci ñaan Jamil attends attends avant avant may ñëw ci loolu parce que su ma nuyoo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nii ma jàkkaarloo il faut ma xool également ñi nga xam ne comme ni ñu koy defee bés bu nekk ñoom ñoo njëkk euh, ci live bi lee bokk na ci Mamor mbay Mamor moom mën naa euh, chaque jour rek avant may tijji sax ma commencé ko duy parce que bés bu ne mi ngi ci mi ngi ci live bi Mamor yi ngi lay nuyu di la ziar di ziar baax Alioune Bey mu ne defar leen son bi balaa Moustapha di commencé Fatou loolu waroon naa la ko wax balaa may commencé euh, Aliou Bey moo ko wax Modou Kara Gamou mu ne bonjour Moustapha sama soppe ziar naa la man tey maa ngi bu baax a baax Modou Kara. Euh, di ziar euh, Serigne Diop mi mu ne Hadj Moustapha euh, da ngaa leer sax hmm, ah je sais xëy na caméra yi rek ak lumière bi eh, kii taal sama kaw Jamil moom leen war na jël congé comme yow waaw ah, man day congé moom gëjoon naa ko jël mais ren jii li ma ci dal nee naa say boo waawal fajiri pare rek na chaque année incha allah rek bu ñu ko fekkee congé mënta ñàkk Aliou Seck ziar naa la Moustapha bëgg naa la seet si mu ne. bëgg naa leen seet si euh, mosuma gis kenn ci yéen Aliou Seck ñu ngi fii ci ci Walfadjri rek douze route du front de terre boo fi ñëwee waxtu boo fi ñëw di nga fi fekk euh, gars yi ko fi soxla di ko gis incha allah amul protocole. Fatoumata Cissé maa ngi lay euh, ziar bu baax Cissé mu ne wallaahi dëgg rek moo tax ma bëgg la man tamit euh, sopp naa la trop Fatoumata te xaw ma la mosuma la gis Baye Modou Maam Mor Baye wax naa ko sànq euh, bàcc mbeng ñu ngi koy ziar bu baax Ndiir Bois xanaa moom menuisier la ziar naa la yow tamit mu ne Sali Walf ñu ngi lay Sall mu ne jaay ngeen jëf Moustapha yow tamit jërë nga jëf Diouf mu ne salaam Moustapha ñu ngi lay delloo nuyoo yow tamit. sii Sidi Sow euh, nuyu nañ ko bu baax a baax mu ne Moustapha dama la bëgg ba gëmewuma ba gëmewuma ko euh, Sidi euh, Oustaz Aliou Sall moo ko doon wax koo bëgg rek bëgg na la ah, wax dëgg yàlla jàppal na cofeel bi nga am ci ñun moom lañ am ci yow yàlla bu sa yaakaar tas mukk ci li tax nga am cofeel boobu la ci ñun ma jigéen juuf faatu mbaa taxawul bon kon baax ma jigéen Diouf parce que waa ji teel na la avertir tey ma jigéen Diouf mu ne salaam grand euh, booy demati vacances il te faudra notre euh, approbation incha allah <laughs> tu nous as beaucoup manqué ma jigéen kon li la metti su ma rek su ma rek dem ma tàggu leen nee na ban jox ma ndigal may may soog a dem mais boo euh, xam nga nag Sénégal dañoo jëm ci ay xam naa naa ci ñëwaat léegi. ci ay échéances yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ne échéance yu am solo la moo tax boo gisee ñu bari ci ñun euh, muy ci journaliste en tout cas dañuy préférer jël congé à l'avance pour que les mois qui qui viennent ñu mën a am jotu euh, mën a taxal dëgg-dëgg ci nga xam ne moom mooy moom mooy xew ci réew parce que mënta ñàkk euh, soxna Ndiaye ñu ngi koy ziar bu baax Moussa Touré moom it ziar nañ ko bu baax moom Moussa taxal ma couper son bii nii parce que son yu bari yi moom du Euh, ñu ngi koy ziar baax moom it euh, bu Ndiaye mu ne Moustapha xanaa da ngay like euh, je sais pas xaw ma lu mu bëgg wax foofu loolu mooy lan Fatou hmm? je sais pas bon Ibra Bamou Moustapha content de te voir man tamit bég naa trop ziar la Momar Thiam Momar Thiam également Mam Mor Gueye ñu ngi koy nuyu di ko ziar Abdou Ndiaye également mu ne. Euh, njóobeen euh, bëgg ceeb waaw xaw ma njóobeen xaw ma ceeb moom bëgg naa ko loolu moom euh, lu leer la faat yi également ñu ngi koy nuyu Maimouna Dieng Maimouna moom commencé naa ko xàmme léegi parce que saa su ne dama koy gis ci ci live xam nga li moo neex ci ci ci ci façon bii ñuy defee live day dem ba ñi nga xam ne ñoom nga ci gis ñëpp da nga leen miin pratiquement il faut partie de la famille te loolu lu am solo la pour ñun. Euh, euh, Fatma Cissé wax naa ko sànq Lamine Anne également euh, Khadim Rasoul sa turu màgg na lool Moustapha Gaawal maa ngi ci de Modou Kara waxoon naa ko sànq ñu ngi koy ziar voilà Birahima Diagne fi mu toll nii war nañoo toll ci mille cinq cent personnes maanaam junni ak juróomi téeméeri doomu aadama yoo xam ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ànd ak ñun di waxtaan alors que bi ñu commencé léegi ci juróomi nit la war toll xam nga loolu. Euh, du euh, nu ñu koy waxee sax kanam gu leer wala wax ju neex moo tax nit ñi ñëw fi mais c'est parce que dañu yaakaar simplement que ni échange bi ñuy am ak ñoom euh, amal na leen jëriñ te loolu dinaa ko wax waxati ko lu rëy rëy ci man la lu rëy rëy rëy ci équipe bi nga xam ne moom lay àndal te li ñu suñu waxoon rek suñu mënoon a jox ku nekk loxo ñoom ñi ñëpp la ñuy dem ku ci nekk ñu jox la loxo ne la ñu ngi lay jaajëfal ci ànd bi ngay ànd ak Walfadjri ndax waxoon naa Euh, que ni lu ñu gën a bari ay abonnés sur la chaîne YouTube de Walfadjri di ngeen gis yu bëree bëri yoo xam ne ñu ko def ci télé bi pour x raison fii lañ koy defee te dinañu jox également liberté wu euh, yi nga xam ne moom mooy am ay tolof tolof parfois ci la gestion de la télévision et de la radio comme li ñu xe daloon mars deux mille vingt et un mu euh, bañ ñoo dal wala bu ñu dee dalit dina fekk ñu am foo xam ne. on a suffisamment de d'internautes yoo xam ne mën nañoo ànd foofu ak ñoom di def euh, suñu suñu liggéey euh, moo tax boobu ba léegi man bu ma commencé man ak Pape Mokhtar gis nga maas bu mu ngi ci euh, maam Biram wàcc également mais également Pape Ndiaye te yeneen ak yeneen incha allah bëgg nañ ko di ko ci di ko ci dolli Jamil fu ñu toll ci kii bi blessure Sadio Mané bi ah ba léegi leeragul alors boobu nag defe naa bés li ñu waroon def mooy bés bu nekk ñu def loolu ñu wax bulletin de santé wax gars yi ne leen Sadio Mané waaw comme Covid bi ak exactement Fap dañu war a def comme Covid bi bés bu nekk ñu wax leen ne leen tànk bi fii la toll ah ma ngi koy teg ma koy mën na cee dox man na cee daw parce que nag fi mu nekk nii li waa ji waxoon réew mi. daanaka kenn toogatul moo ko lii suba ci presse bi ñu ne am na ay imam yu nekk fële ca defe naa mooy dëkk moom dëkk moom bambali wàcce ay kaamil euh, ngir yàlla taxawu tàgg may ne loolu de am na solo waaye suñ ma indi loolu ma yóbbu ko ci benn village bu tudd Barale nekk fii ci Louga defe naa ne une semaine léegi mu commencé daw de ma ko en tout cas lu am solo la lire naa également le ministre Ablaye Sow mu wax lu am solo parce que daf ne nañ wax dëgg sénégalais yi Sadio dafa blessé loolu moom mooy li dëgg dañ ko wax Sénégalais mu leer que ni Sadio il y a des possibilités mu bañ a bokk ci coupe du monde bi comme c'est possible bokk ci mais suñ fi nekkee naan ñi ngi xaar ak ñi ngi yaakaar ak affaire yooyu ñuy dundee yaakaar ba ca bés ba euh, ñu ne Sadio Mané du mën a bokk bon man euh, je ne suis pas comme certains journalistes sportifs yoo xam ne waruñu koon man dama gëm ne dañ ko war a sélectionné dañ ko war a sélectionné espérant comme li ñu amoon ak Ismaïla ci kii bi euh, ci CAN bi match yi avancé Sénégal yàlla na ko yàlla def mu sori ci compétition bu ñu soree xëy na saajo mën a dabe bu fekkee ne mënul commencé ak ak ñun mais en tout cas bu ma liiree li tax ma ma ciy taxaw d'ailleurs Jamil bu liiree euh, waa ji mu ne ministre Abdoulaye Sow mu ne il faut dire la vérité aux Sénégalais Sadio dafa blessé ma gis benn waaye bu neex bindal ko ci suuf ne ko il faut dire la vérité aux Sénégalais Macky Sall mënut a bokk 2024. <laughs> ma ne ko vérité pour vérité rek loolu moom mooy liy dëgg ah bu ko jaaree ci li ñu war a ci li ci liy dëgg rek mooy élection présidentielle euh, deux mille vingt quatre Macky Sall mënu cee bokk te waru cee bokk te loolu du waxu Moustapha Diop du waxu waa jooju bindal ko ministre Abdoulaye Sow du waxu également ñi nga xam ne ñoom ñooy ay chroniqueur rek ni ci télévision xam nga waxu kan la waxu président Macky Sall moom ci boppam moo wax ne wax ko ba pare bind ko ne. élection présidentielle 2019 bu ma Sénégalais wóoloo ba fal ma su ma gañee jeexal naa ci 2024 bokkuma ci donc il faut diir la vérité au Sénégalais monsieur le ministre Abdoulaye Sow ne leen Sadio Mané dafa blessé waaye il faut dire la vérité aux Sénégalais également ne leen président Macky Sall bokkul ci élection 2024 pourquoi parce que moom moo waxoon ne bokkul yeneen yëpp naan ay constitution beeg euh, deuxième quinquennat ak ay tappale rek la tappale rek la waxu kilifa moom waxu kilifa la rek moom moo wax ne bokkul bokkul ñu seeti leneen donc mi ngi noonu euh, dinaa ci ñëwaat léegi sa ak élection présidentielle 2024 parce que comme ni ñu ko tànnee euh, tey comme sujet mooy 2024 tàmbali na déjà moo tax ma ne 2024 c'est maintenant mais dama bëggoon a taxaw très rapidement ci li nga xam ne moo concerné taskatu xibaaru Sénégal yépp mais du mbiru taskatu xibaar rek parce que dégg naa ñu bari ñu wax ne wéy Pape Alé Niang dañ ko jàpp journaliste yëpp dañoo war a taxaw comme bu fekkoon dañoo jàpp benn médecin médecin bi dañuy taxaw bu jàppoon benn kii ñëpp dañuy taxaw donc moom dañ ko war a taxawu ndax ci ñun la bokk ma ne d'accord sur le principe je suis d'accord mais li tax ñu gën a war a taxawu Pape Alé Niang ba mu génn fee mu nekk moo di ne man dama gëm ne wax naa ko fi keroog li ñu koy jàppee teguñu ko fenn man loolu laa gëm muy benn ñaareel bi moo di ne euh, ni ñu ko euh, jàppee noonu ba. teg ko ci bërëb ne ko fii doo fi jóg tant que lijjantiwu say biir ba pare ku ci nekk ci ñun waxuma quand je ku ci nekk ci da nga yaakaar ne journaliste rek lay waxal mais ku ci nekk ci sénégalais yi nga xam ne ñoom la yàlla nattoo ci réew mi ñu yëkkati seen kàddu di wax ak fu ñu ko mënti waxee nag ne leen leer ne loolu mën naa dal ci ñoom Fatou année yi ñu génn gis nga imaam yu bari ci seen xutba lañ leen jàppe def ci kaso am na ay sénégalais yu bari ci seen page Facebook la ñu bind ñu jàpp def ci kaso bi am na ay sénégalais yu bari si youtube la ñu toog comme ni ñu toogee fii di def live ñu jàpp def ci kaso bi donc li dal Pape Alé il faut que sénégalais bu ci nekk gëm ne euh, nu ñu koy waxee du mbiru Pape Alé Niang mais mbiru population wu Sénégal bépp la te su ma déggee yenn ci journalistes yi ñu xaw a sceptique ci combat bi nga xam ne moom la ñuy mëne en tout cas man moom lay mëne te ak ñeneen ak ñeneen pour que Pape Alé génn foofu mu nekk dama naan quelque part ils n'ont pas très bien compris ce qui se passe Fatou est-ce xam nga ne euh, charte yi nga xam ne moom la procureur teg pour yóbbu Pape Alé kaso daf ci am bu mu ci tànn sànq rek maa ngi déggaat euh, sama grand di ko wax moom Daouda Mine dafa am bu ci procureur tànn boo xam ne Jamil lu doy waar te jar na bàyyi xel xam nga dañ naan la juge bi mooy le juge d'instruction dañ laal la moom moom mooy placer nit sous mandat de dépôt ma moo yóbbu nit prison ñu ne juge boobu kenn du ko digal lu muy def kenn du ko digal moom mooy tànn ci xelam en toute conscience mu xam ne kii ñu ko àndil lii ñu ko tegal jar na yóbbu kaso mu yóbbu kaso jar na placé sous contrôle judiciaire muy placé sous contrôle judiciaire jar na jar na jar na moom mooy décider ma ne d'accord le juge Mamadou Seck bu bu yore deuxième cabinet fële ca kii ba moom moo ko def mais dafa am lu am solo moo di ne procureur dafa am ay loi yoo xam ne su fekkee ne faatu yow mi dañ lay topp yàlla bu ñu la topp su ko procureur visé dañ ne le juge d'instruction amul pexe il est tenu de décerner le mandat de dépôt maanaam li ma bëgg a wax mooy jërul di citer ay article numéro sangam numéro sangam je dis souvent aux chroniqueurs judiciaires que ni loolu dafay jaxase ñi nga xam da nga leen déglu da nga leen wax ci ay wolof yu leer ñu dégg jamil su fekkee tey da am problème ak yoon comme ni ko Pape Alé Niang amee procureur dañ ne mooy avocat wu société bi maanaam ñun ñëpp procureur mooy défendre suñuy intérêt ñu ne procureur moom la moom mooy maître des poursuites maanaam moom mooy toppee. moom mooy toppe avocat day défendre ñu ne procureur moom mooy toppe ñu ne procureur moomu di toppe kan mooy patron ñu ne ministre de la justice il faut ñu wax ko mu simple rek ñëpp comprendre ministre de la justice kan mooy patron président de la République kon Jamil war ngaa mën a gëm ne procureur moomu am na koy jox ndigal am na patron muy benn ñu ne la procureur moomu nga xam ne moom dafa nekk ci resp ci ci autorité wu nit ci autorité wu nit dafa am kilifa ñu ne procureur moom su fekkee dañ la yóbbu ci juge d'instruction procureur bi def ay réquisition ñu ne am na article yoo xam ne bu ko procureur visé maanaam wax ne euh, article sangam euh, noté woon naa ko mais je pense que day grouiller nit ñi da leen da leen jaxase mais su fekkee dañ ne procureur dafa visé article sangam ñu ne article boobu su bokkee ci li procureur visé maanaam ci lim lay toppee yow soo demee ci juge d'instruction bi le juge d'instruction est tenu bu ñu ne laa nit il est tenu mooy mayuñu ko mu tànn day def par force li nga xam ne moom la procureur bëgg moo tax keroog avocat wu Pape Alé Niang ñu wax ne euh, procureur bi mu euh, juge d'instruction bi mu koy décerner mandat de dépôt maanaam di ko yóbbu prison def na ko je suis désolé mais mënuma leneen loolu yóbbu la prison waaye léegi à partir de cet instant là est-ce que yow mën ngaa gëm ne le juge d'instruction il est indépendant ah moom indépendant mais indépendance am dañ koo tënk ci bu ko procureur waxee ne ko à partir de article sàngam yóbbul kii mandat de moom amul beneen pexe bu dul yóbbu la mandat de dépôt li muy tekki rek ci lu simple parce que man vraiment dama bëgg mu simple ci bopp ñuy seetaan bañ xam ne Pape li ko dal mën naa dal kenn ku nekk ci li lu simple mooy su gouvernement wu Sénégal décidé woon tey ne kenn ci ñun ñett ñii dafa war a fanaani kaso ñu ne procureur topp ko ci nangam ak nangam procureur bu la dee topp am na article yoo xam ne da koy viser rek soo demee ci juge d'instruction amul benn pexe bu ñu yóbbul prison amul wala boog nga am doole ñu toll ne ci Ousmane Sonko amoon en mars 2021 te loolu yow amoo ko Fatou amu ko man aw ma ko ñuy seet amuñu ko moo tax daal euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy toog naan waaw man daal euh, Pape Alé lii Pape Alé laa nañ bàyyi xel ne bis bu tolof tolof bi gën a ndaw amee ci seen làmmiñ ba loolu dal leen lu de lu mel ni mën leen topp te li tax mu am solo mooy Fatou wax naa leen fii keroog ne Pape Alé li ñu koy toppee ñu bari dañoo jàppoon ne euh, dafa am benn laay bu mu defoon wax ne dafa am un rapport interne boo xam ne gendarmerie ñoo ko def jëme ko ci wàllu l'enquête boo xam ne mi ngi amoon ci les événements de mars 2021 bi fi soxna soosu di Adji Sarr jiiñee waa ji di Ousmane Sonko ne dafa yegg ci kawam ci lu ko neexul waa gendarmerie def seen enquête ci biir am lu ñu ci yëgle lu ñu ci wax ñu ne enquête boobu moom la Pape Alé génne te waru ko woon génne moo tax ñu koy topp mais li tax ma koy fàttali mooy avocat yi Pape Alé ñoom ñoo dajee ak kuréel gi nga xam ne euh, taskatu xibaar yi ñoo ci nekk muy CAP con euh, coordination des associations de de la presse ba pare ñu tijjil ko ak yeneen journalistes yoo xam ne bokkuñ ci association yooyu mais ñu ñëw bokk ci benn collectif te man mi ci collectif balaa bokk. gis nga bi ñu dajee ak avocat yi avocat yi dañ ne li ñuy toppee Pape Alé bi mu demee ci àttekat bi tuddul benn yoon rapport bii nga xam ne Sénégal gépp dañoo jàpp ne moo tax ñu jàpp tudd ko benn yoon loolu avocat moo ko wax tudd ko benn yoon ça veut dire que rapport moom jël nañ ko tege na beneen bi ñu ne ñoom daal li liñ wax ne moom lañ koy toppee bokk na ci benn euh, message bu waa police jëloon message interne pour envoyer ko seen biir mu génnee ko muy benn. te message boobu ñu waxantee dëgg euh, dana woon fànk ci réseaux sociaux yi mel ne kuy teg géej ci marché beneen bi ñu ne benn note de service boo xam ne waa sapeur pompier la woon euh, ci seen biir la war a ne mu génne ko laa même chose note de service boobu tamit boo xoolee ci réseaux sociaux yi da koy gis te yaakaaruma ne Pape Alé moo ko njëkk a génne ñu ne ko également laaj nañ ko ci affaire waaye yi nga xam ne moom lañ tëjoon commissariat central te mujj faatu muy Mankab ñu ne defoon na ci benn live laaj nañ ko ci laaj nañ ko également ci lu mu waxoon ci mbirum général Fall loolu boo ko déggee sentiment bi ngay am rek moo di ne quelque part Pape Alé Niang gaa yi ko jàpp ba pare yor benn torche di wër fi euh, euh, at yi ñu weesu ana lan la fi wax loo xam ne mën nañ ko cee topp te réew bu tollee foofu man damay commencer di wax ne lii nga xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de la presse moom mi ngi commencer dee bu deewul ba pare parce que liberté d'expression ak liberté de la presse suñu ko dee wax nekkul ay textes yu ñu bind ba mu leer parce que bu dee ay ay textes c'est vrai am na ci Sénégal euh, ci suñu code pénal wala code de procédure pénale des articles liberticides yoo xam ne tey journaliste bu ko gàll sa kaw nga dem prison yooyu am na mais lu textes yi baax baax sax li nga xam ne dëgg-dëgg mooy tax nit ku nekk am sentiment wu ne respecté nañ liberté d'expression ci réew mi respecté nañ liberté euh, de la presse ci réew mi mooy. doomu aadama bu nekk waxuma si journaliste de mais doomu aadama bu nekk même kii wax kii woote rajo di wax wax sa xalaat mu am sentiment wu ne moom lii muy wax nii tant que waxu ci loo xam ne dafa nekk euh, aw saaga wala euh, xaw yi suturéwu doomu aadama wala yu mel noonu dara du ko ci fekk cest à wax sa xalaat en toute liberté loolu mooy liberté d'expression mais su fekkee ne da nga am sentiment yow journaliste bi même dans les pays de guerre journalistes yi souvent ay loi yu baax moo am ci réew yooyu ah. mais lu tax souvent ñu naan la liberté de presse est menacée dans ces pays là dafa fekk ne journaliste bi nga xam ne mooy liggéey ci réew yooyu am na yoo xam ne su ko waxee dara mën na ko cee fekk tey Sénégal gii journaliste bu ko wax ak bu ko waxul ñëpp ñi nga xam ne ñooy wax ci rajo ak tele ñoom ñëpp xam nañ ne tey li nga toog di wax nii am na lu la ci mën a fekk soit nga wax loo xam ne neexul nguur walla nguur. yaakaar ne da koy yàqal dara mu jaar la fi mu jaarale Pape Alé Niang wala nga wax loo xam ne neexul beneen euh, leader wala beneen euh, nit ku am mbooloo mu nekk leader politique opposition comme pouvoir mu nekk ab sëriñ wala mu nekk ab homme d'affaires wala leneen mais en tout cas nga wax koo xam ne moom moo la ëpp doole wala moo la ëpp mbooloo te li nga wax ci moom wala li nga bind ci moom même bu dee dëgg neexu ko kooku mën naa dal sa kaw loolu réalité wu Sénégal à partir de cet instant là dañuy remettre en cause li nga xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de la presse te boo ko remettre en cause fan yëpp maa ngi koy wax mooy mën nga contrôler li nga xam ne moom laay woowe les médias classiques mooy télévision yi rajo yi journaux yi parce que ñooñu dafa am benn cahier de charge boo xam ne je prends l'exemple de Walfadjri bi ñu koy jox licence pour mu nekk télévision boo xam ne nit ñi mën nañ koo seetaan fii ci Sénégal ki nga xam ne moo ko jiite dafay dem ñu jox ko benn cahier de charge mu signé ko kay de charge boobu daf koy wax ne que da nga am obligation respecter nangam ak nangam ak nangam ak nangam yaa ngi dégg. donc Walfadjri googu boo fa nekkee yow mu neex la mu naqari la lépp loo xam ne engagement Walfadjri la ak état wu Sénégal ci lu mu war a respecté ci cahier de charge bi nga xam ne moom la signé da koy respecté. soo ko respecté wul CNRA mi ngi taxaw et d'ailleurs sax une petite parenthèse dafa mel ne suñu ministre bu bees bi ministre de la communication euh, nu mu tudd maître Moussa Bocar Thiam moom dañ koo fal ministre mu def la Youssou Ndour waxoon ne jumbóori dañ ko fal buur mu jël yatam di dóor ko deful dara c'est-à-dire que moom dañ ko fal ministre au lieu que mu xam lan mooy liggéeyu ministre moom mu bëgg a def liggéeyu CNRA dem ci émission rajo yi naan on va sanctionner dinañ def lii dinañ def la nangam ak nangam damay fàttali rek benn ministre bu ñu fi masoon a woo ministre de la communication ndeysaan woote fii ne day tëj Walfadjri ma ne leen paas leen ma ko ma wax moom téléphone <laughs> bu fekkee ne ministre moom day toogam neex rek mu ñëw ne day tëj Walfadjri paas leen ma ko ma wax ak moom téléphone mais bon mais li am solo mooy di ne donc dañuy am obligation respecte li nga xam ne mooy cahier de charge télé boo xam ne moom la signé soo demee 2S euh, euh, dafa am cahier de charge bu ñu signé war ko respecte soo demee Sen TV dafa am cahier de charge bu ñu signé war ko respecte soo demee 7TV soo demee TFM soo demee IT ITV foo mënti dem foo mënti dem télévision boo gis ak journal boo gis. dafa am loo xam ne ay charte la yoo xam ne moo ko tënk am na foo xam ne su mu bëggee dem dañu naan niib jàpp ci loxoom ne ko lii da ngay violer cahier de bi nga xam ne moom nga signé woon te boobu bés bu euh, mo jamono bu ne da dégg ñu mel ne waa CNRA di ñu ko fàttali mais su fekkee ne ñooñu nga xam ne am na lu ñu war a respecté te te di ko respecté nag ak lu ñu mën parce que wax naa ko démb rek sama benn collègue fii ma ne ko coow li bari na lool mais man dégg guma benn journaliste sénégalais bu jël aw saaga jëmale ko ci président Macky Sall dégg ko man nañ ko critiquer de manière très très sévère mais dans le respect de l'institution bi nga xam ne moom la président Macky Sall muy président de la République du Sénégal mais su fekkee ne journalistes yooyu nga xam ne comme man ak ñeneen ñu bëree bari ci chaîne de télé yi ak rajo yi dañoo am souci wu di respecter président Macky Sall di respecter institution bi nga xam ne moom la incarné kooku su demee ba mënatul wax parce que dafa yaakaar ne su waxee li dal Pape Alé Niang mën na koo dal wala boog su waxee man nañ ko teg ay bunduxataal mu ne léegi man duutuma wax xam nga lan lay jur dafay am ku koy wuutu ki koy wuutu mooy kan mooy sénégalais bi nga xam ne dafa nekk états uni wala kanada wala France wala même fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru wala ci yeneen dëkk yi Sénégal am benn chaîne YouTube am walla benn kii am comment est-ce qu'on benn page Facebook am wala yu mel noonu wala sax nekk ci groupe WhatsApp nga xam ne moom amul benn cahier de kenn. kooku Jamil bu dee wax day wax lu neex di wax lu naqari di wax xamul lan mooy limitam xamul parce que amul amul ku muy ku muy rendre compte en fait moo tax ngay dégg ñu naan la yenn librairies yi dañuy dem bay saaga président de la république ñenn ñi di dem bay saaga soxnaam xam nga ne doo dégg benn journaliste sénégalais mu dé mu yëkkati baat bi gën a ñagas di ko jëmale ci soxna njiitu réew mi wala mu yëkkati baat bi gën a ñagas di ko jëmale ci président de la xam nga lu parce que dañu am responsabilité boo xam ne déjà nos règles d'éthique et de déontologie permettre ñu ko mais également euh, fi nga xam ne fa la ñuy waxee muy Walfadjri gi comme man fi ma nekk duñ ma fi may mukk may wax wax yu mel noonu di ko jëmale ci président de la République parce que tëjub kër gi mën na cee ak mais ki nga xam ne dafa yor chaîne YouTube am nag ah kooku amul compte bu muy rendre kenn moo tax nañu def attention que ni la liberté de presse la liberté d'expression buñ dee xeex pour ñu sàmm ko c'est pas pour les beaux yeux des journalistes mais c'est pour dañoo gëm ne loolu mooy njariñu askanu Sénégal parce que Jamil pour avancer un peu ñu wax ko ñu bañ koo wax moo di ne jamono ji ñu toll sénégalais yi ne ci biir réew mi ak yi ne ci bitim réew sénégalais yu góor yi ak yu jigéen yi sénégalais yu màggat yi ak sénégalais yu nekk xale Sénégal yi nga xam ne dañoo yor soxna yor njaboot ak sénégalais célibataires yi koo ci laaj am na benn type bu ne ci moom parce que ñun ñëpp dañoo gëm ne fii jamono jii may wax ak yow nii ba ba février deux mille vingt quatre lu nekk mën naa xew ci réew mi lu nekk mën naa xew ci réew mi te loolu jërul di ko jiiñ kenn ak kenn jërul jàng science politique. wala nga jàng sociologie wala nga jàng leneen pour xam lan moo ko waral lenn dong moo tax sénégalais am crainte tey mooy dañu am occasion pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu jëm benn élection présidentielle boo xam ne du ñu folli dañuy fal en 2000 dañoo folli Abdou Diouf jaar fa falaale Abdoulaye Wade en dañoo folli Macky Sall jaar fa falaale dañoo folli Ablaye Wade jaar fa falaale président Macky Sall en 2024 Fatou du ñu soxla folli kenn dañuy tànn ne ana kan moo gën ci réew mi ñu dénk ko réew mi te loolu dafa am solo te li tax sénégalais yu bari di am crainte di am euh, tiit moo di ne dañu gëmoon ñun ñëpp à commencer par ñi bokk APR ñi gën a jege président Macky Sall dañoo gëmoon ñun ñëpp en 2012 que ni élection présidentielle 2012 Macky Sall gagné ne ko 2019 mën naa bokk mais 2024 Sénégal day am beneen président ñëpp ñoo lañ gëmoon président Macky wax ko fu ne ne 2024 da ngeen ni tànn beneen président mën naa tudd Jamil mën naa tudd faatu mais du tudd Macky ñu ne ko lu tax mu ne parce que man maa def ci constitution wu Sénégal ne damaa bëgg li fi xew a 2012 ba ay nit dee fi dootul xew ci réewum Sénégal ñu ne ko nooy def mu ne damay bind constitution bu bees ba pare verrouillé ko ne kenn mënatul def ñaari mandat yu tegaloo ci biir réew mi. yenn borom xam-xam yi nga xam ne parfois seen xam-xam daf leen yóbbu ci ak fumiste wala ak hypocrisie ba ñuy wax loo xam ne kenn waxloowu leen ko daal di commencé naan est-ce que mandat ba mu defoon muy mandat wu sept ce que ci lay bokk ab déet président Macky Sall taxaw ñëpp di ko xool mu ne man mënuma comprendre man président Macky lan moo tax nit ñi di débat ci troisième mandat man maa ne 2012 fal ngeen ma ba 2019. ma ne woon dinaa wàññi mais wàññiwu ma 2019 bi nii maa ngi dem di wuti su yàlla nangoo ak ci Sénégal yi bëgg ma nekkaat seen président bu ñu ma falee mille mille 2019 2024 man pare naa ci du ma bokkati wax ji jeexul jamono di dox di dox di dox ba jamono jii ñu nekk li nga xam ne moo war a dundal démocratie ci lañ war a nekk te gis naa ne euh, Malick Gakou ci la nekk Abdourahmane Diouf ci la nekk Ousmane Sonko ci la nekk te APR sax ci lay nekk te naa ñëw léegi wax loolu tax xam nga la mooy dundal démocratie mooy bu ñu jubee ci élection parti yi dañoo am euh, obligation wala coalition yi taxaw ne ñun diw mooy suñu mbër pour dem ci élection yi parce que dañu wax ne élection présidentielle dañu wax ne c'est la rencontre entre un homme et son peuple ma ne yàlla na homme boobu am profil mais également am projet bu muy proposé te li nga xam ne moom laa gis ñoom grand grand parti bu Malick Gakou def ko samedi man dama jàpp ne loolu mooy samedi ou dimanche samedi samedi je ne sais dama jàpp ne loolu mooy lii dundal démocratie xam nga mooy lan mooy am nga parti leader politique nga nga woote congrès sa waa parti ñëw ne ñun dañuy tànn Malick Gakou mii ne mooy suñ candidat en 2024 ñu ne tax ngeen koy tànn ñu ne parce que am na profil bi ñu ne lan mooy profilam ñu ne nekkoon na ministre nekkoon na nekkoon na euh, conseiller bu Famara Ibrahima Sagna nekk na homme d'affaires il a réussi dans les affaires et te kenn mosu koo topp ci dara saa veut dire que ni sàccul xaalisu kenn d'accord bu leen neexee mën nañ ko wax ñu ne mooy suñu candidat lan mooy seen projet ñu ne lii mooy suñu projet ci wàllu santé ci wàllu social ci leneen ak leneen ñu ne leen am ngeen ci droit démocratie noonu lay doxe ku mel ne Ousmane ko taxaw ne man dama bëgg a nekk président wu Sénégal déclaré candidature am ñëpp di ko dégg mu ne sama parti sax danañ def seen congrès pour confirmer que ne man may nekk seen candidat à l' élection présidentielle ñu ne ko d' accord ñu ngi lay dégg mu ne du may am foofu damay wër senegal gox bu ne ma dem fa nemmeeku ña fa nekk wax leen ne lii laa bëgg a def ak yéen su ma nekkee président wu Sénégal loolu mooy lii dundal démocratie. ku mel ne Abdourahmane Diouf taxaw ne dama bëgg a nekk président Sénégal te lii moo tax ma bëgg koo nekk c'est ça la démocratie waa APR également ñëw taxaw ne dañuy jaay ay carte loolu ci démocratie la bokk te dañoo am droit taxaw ne dañuy jaay ay carte pour yokk suñu ay militants bu parti loolu dafa bokk ci liy dundal démocratie te c'est important pour un parti politique parce que dama gis ne depuis man bi ma demoon le congrès de l'AFP temps wu Moustapha Niass ba Abdoulaye Wade nekk président Sénégal daanaka boobu bëlee gisatuma parti yi ñuy def ngandi congrès yooyu PS moo ñu miinaloon ay congrès mais PS léegi moom defe naa yóbbaale ma la gën a nekk autre chose quoi mais dafa loolu gis nga euh, Jamil dafa bokk ci li dundal démocratie mais puisqu'il mais APR dañu am un problème parce que autant je dis que ni dañoo am droit wala boog sax obligation wu di jaay ay carte pour di yokk seen ay militants renouveler seen parti également mais dañoo am loo xam ne amuñ ci droit waa APR am na loo xam ne amuñ ci droit mu droit taxaw jàkkaarloog sénégalais yi ne ñu ne leen màkki Sall mooy suñu bër loolu amuñ ci droit li tax amuñ ci droit mooy li ma la wax sànq mooy président Macky Sall moom moo taxaw ne man Macky sàll man Macky Sall aw ma droit nekk président présidentiel gis nga bu ñu waxee loolu ba pare ci la waa APR waroon a commencé xool ci seen biir ci seen biir ne ñun ñuy kër wax dëgg yàlla. ñu ne opposition di wax gënuñoo xam réew mi gënuñoo bëgg réew mi gënuñoo nekk ay gor dàquñoo ñoo jàng lan moo fi jar kon ñu moo ci président Macky Sall ne ko budul yow du keneen non dañu war a jaay ay carte ba pare tànn kenn ci biir xaw ma kum ciy doon bu leen neexee sax na nekk euh, je sais pas wala euh, waaw Mbaye Ndiaye kay wala keneen ku leen neex wala Mame Mbaye wala Abdou Mbow kenn ku leen neex rek ku leen neex ñoom waa APR. ne kii mooy suñu candidat kii lañ bëgg bu ñu demee élection présidentielle mu wuutu président Macky Sall ci réew mi bu leen neexee sax ne da ngeen woo Sénégalais ni leen ñun kat am nañ président boo xam ne man sama su ma bokkoon APR ñu xam am nañ président boo xam ne am na bilan bu mu def ci réew bi waa APR lay wax de parce que boo ñëwee ci réew taax yi comme Dakar gi ñu nekk bu leen neexee ne def na fi tali def na fiy pont def na fiy nangam ak nangam su leen neexee ne ba mu nekkee président. moom président Macky Sall wàññi woon na taxes yi nga xam ne moom lañ daan teg ci salaire yi ba liggéeykat yëpp à commencer par man mii yëgoon nañ ne seen salaire yokk na bu leen neexee wax ne moom président Macky Sall ci wàllu social def na nangam ak nangam projet boobu nu ñu ko tuddee bi ñuy yóbbante xaalis bi laa xaw ma bi ñuy yónnee xaalis xaw ma nu mu boobu am na bu ñuy yónnee xaalis rek. Euh, dina dina ñëw après plan Sésame bu Macky Sall moo koy moo koy def mais en tout cas euh, programme la ci wàllu social bu leen neexee ne président Macky Sall bi mu jiitee Sénégal le programme Piment fexe na ba ay yoon am ci yenn dëkku àll yi ay forage bu leen neexee ne tabax na ay l'hôpital nangam ak nangam waaye comme léegi nag à partir de 2024 mënatul nekk président ñun dañoo bëgg sénégalais yi Abdou mbaw mii wala Mame mbay ñaa mii wala Mbaye Ndiaye mii wala bu la neexee sax ne Marième fay sàll mii dañoo bëgg mu remplacer Macky Sall su ko defee projet yi mu amoon moom mu yeggale ko loolu mooy démocratie loolu mooy démocratie su ko defee sénégalais yi taxaw daan ne ah Ousmane Sonko taxaw na Malick Gakou taxaw Abdourahmane Diouf taxaw xëy na Khalifa Sall dina taxaw xëy na Karim dina taxaw xëy na keneen ku ma xamul dina taxaw waaye waa APR tamit kii taxaw na ne mooy seen candidat su ko neexee sax président Macky Sall ànd ak moom di battre campagne bañ xam ne mooy candidat sénégal Sénégalais yi tànn en toute liberté loolu gis nga loolu jame ku la ko wax mooy jàmmi réew mi ku la ko waxul mooy jàmmi réew mi parce que dégg naa imam euh, bu baax boobu ci Touba imam Serigne Mor Mbaye ku baax ndeysaan te ñeme dëgg mu wax ne bu ñu yaakaaree ne Sénégal gii président Macky Sall dina fi déclarer candidature am te damay bokk élection présidentielle te dara du xew dañuy nax suñ bopp waaw mu ne buñ ko yaakaaree dañuy nax suñ bopp parce que bul fàtte ne en 2012 2011 2012 bi ab lay Wade taxawee ne damay déclarer sama candidature nekkaat président wu senegal ba pare yokkal ci ne waa parteem su ngeen demee sax ñu ne leen président ma ma Abdoulaye Wade moo waxoon ne mënta nekk candidat tey bëgg a nekk candidat ngeen ne leen maa waxoon waxet mais coow loolu xam nga ñaata bakkan la jural Sénégal fukk ak ñeent au moins au moins faatu nañ ci te sax am na ñoo xam ne nee na ñun xamuñu leen parce que comptabiliser wuñu leen mais faatu nañ ci ñu bëree bëri ñàkk seen alal réew mi demul réew mi dikkul lan la jur ñu dem élection président Ablaye Wade daan nga yaakaar ne Jamil li Sénégalais yi lànkoon ne duñ ko may ab Ablaye Wade en mille 2012 dinañ ko nangu dinañ ko nangoo may président Macky Sall en 2024 voilà hmm? parce que Ablaye Wade moo doon président bi nga xam ne ci président wu Sénégal yëpp moom moo ci amoon lenn. Sénégalais yu bëri dañoo amoon sentiment wu ne Abdoulaye Wade moom nekk gi mu nekk président wu Sénégal du koo mérito kenn may ko ko da ko xeex parce que vingt six ans d' position la def yenn saa yi mu dugg yenn saa yi mu gën naa nga mën a mais en tout cas li li un opposant war a def lépp pour nekk un président def na ko Sénégalais yi moment bu moment yi Abdoulaye Wade nekk pouvoir Sénégal bi rek da nga da nga jàppoon ne Abdoulaye Wade bi moom dafa mbir nekk président Sénégal ba moom ci boppam wax dafa gëmoon ne pouvoir bi mu yor moom moo ko xeexal boppam ba yoral ko boppam moo tax mu daan taxaw di défier opposition naa la bu ngeen bëggee marche génn leen nekk def na ko parce que dafa gëmoon ne pouvoir boobu moom kenn mayu ko ko moom moo ko xeex moo ko ñaq mais Macky Sall 2008 2009 la génn APR dàqante gars yi course de vitesse la moom deful course de fond course de vitesse la ko def 2012 mu nekk président Sénégal mais kooku. yàlla teraanga boobu bu yàlla defal ko defalu ko keneen ci réew mi defalu ko keneen ci réew mi parce que moment boobu muy daaneel ab lay Wade amoon na candidat yoo xam ne ba ñuy nekk ba ñuy politique moom Macky Sall nga ma nga yor cartable am di jàngi école primaire te nekkoon nañ candidat moom ki mu daaneel moom Macky wax na ne lépp lu mu xam ci politique kooku moo ko xamal nga xam ne kon mbiru yàlla yàlla teral na ko te bi ko yàlla teralee rek li mu war a terale Sénégalais mooy rek tànn kenn ci waa APR bu ko neexee sax mu ñëw tànn ma ne moom mooy nekk suñu candidat en 2024 ne kii moom laa wóolu moom la suñu parti wóolu pour mu yeggalee li nga xam ne man maa moom laa commencé ci réew mi su ko defee ñoom Malick Gakou ñoom Ousmane Sonko ñoom euh, euh, Abdourahmane Diouf parce que ñooñu laa gis ci suba ñu ñu def seen ay photo ne ñoom déclaré nañ seen candidature ñooñu tamit ñëw taxaw ne li fi Macky Sall def fukki at ak ñaari mu jiite Sénégal yëpp dara baaxu ji ñu dañoo bëgg bu ñu nekkee président du am continuité mais day am rupture ñu indi lii ak lii ak lii Sénégal yi tànn fal seen président c'est tout mhm. ñeme nañ ah intéressant Fatou gis nga ñu bari dañuy wax ne APR kenn du yëngu mais naa la xamal lenn de gis nga bu ñu duggee ci janvier deux mille vingt trois Macky Sall dina leen létt mbaa mu firi leen soit mu déclarer candidature am ne day nekk candidat wala en tout cas mu xaar ba vers décembre deux mille vingt bañ ne cat la mu ne day nekk candidat su boobaa aussi pendant cette année là luñ gën a dem gars yi di gën a gëm ne day nekk candidat même su ko waxul soit donc mu wax ne day nekk candidat su ko defee di nga gis ci biir APR même ak ci biir nu ñu koy waxee sax benn bokk yaakaar ñu gën ne ko d'accord uñu parce que ñun dañoo bëgg a sàmm lañ waxante woon. dafa am benn euh, lu ndaw lu xew temps yee faatu te ñu bëri yaakaar ne c'est c'est fortuit c'est gratuit et man ma gëm ne lu jar a taxaw la ci wàllu lecture politique mooy Idrissa Seck dafa jékki-jékki rek woo ay ñooñam ay ñooñam ñu daje commencé waxtaan pour redynamiser seen parti te li ma ci xam tam leer ma parce que parti boobu yàlla dafa dogal liñ may xas di ma saaga yëpp bari naa ci xarit lool am na plusieurs rencontres yoo xam ne def na ko ak ay instances su parti moom Idrissa Seck mais Idrissa Seck defu ko pour wut lu neex Macky Sall de daf koo def parce que dafa gëm ne fii ak deux mille vingt trois réew mi mën naa demee nu ne qu'est-ce qui nous dit à partir de deux mille vingt trois Idrissa Seck du taxaw ah oui de dama bëgg ci waat Idrissa Seck nu ñu koy waxee sax plafonné di amu ah am âge ba ñu wax ne ku fa yegg dootoo nekk candidat Idrissa Seck amu ko il il est il a de l'énergie man nekk candidat même si biir APR y a gens yoo xam ne tey amul benn garantie que ne bu ëllëgee ñu taxaw nañu dañoo bëgg parce que difficulté bi mooy su président Macky Sall waxul gars yi wax à sa place te su waxee féewuloo bi dina commencé parce que moom dafa waxoon d'ailleurs te moom boobu maa nga fa woon benn 31 décembre mu wax ne. moom président Macky Sall booba boo gisee mu naan nii oui nii no mooy parce que bëggul installé ci réew mi débat boo xam ne lépp ci élection présidentielle lay nekk alors que jotagul mais ba nga ko waxee ba léegi Jamil débat bi yëpp ci loolu la. te li xew ci réew mi yëpp maa la wax lii xeex yeeg euh, dem ci yoon ak accusation yeeg nit ñi jàpp di tëjëg journaliste yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp xam nga ko waral présidentielle 2024 du leneen du leneen Sénégal. dañu toll ci moment te ci loolu laay jeexale ngir ñu mën a dem def départ gi dañu toll ci moment boo xam ne adduna bi ñëpp a ñëpp a jaaxle réew moo dem fi mu nekk nii ña ngay baa ña ngay réfléchir seen i assemblée ngi daje di waxtaan pour xool nan la ñuy def ba li nga xam ne mënul a ñàkk muy choc nga xam ne mooy dal ci réew yi ñu ñu ñu amortir ko moo tax le président de la république jëfe ay décision pour wàññi location pour wàññi njëgu ni ñu koy waxee njëgu dund gi mais débat boobu ni ñu ko waroon a poser au sein de la société ba waxtaan ci ba commerçant bi kii yooyu këram comprendre ne fii bu ñu fi jaarul réew mi ci guuta la jëm parce que nit ñi mënuñoo kon ne di jënd njëg yi ñuy jënd mënuñoo kon ne di fay location bi ñuy fay waxtaan boobu duñ ko def dañuy daje pale ak quelques ñu tudde seen bopp ay association de consommateurs ñu ko tudde seen bopp laa wax ak quelques commerçants gis naa benn waaye seen TV laa ko seetaane mu ne ñoom Euh, euh, ceeb la ñuy lañ wax ne moom la ñuy wàññi ak suukar ak yooyu alors que kañ yóbbu woon palais mu représenté leen pour wax en tur greffage lay jaay <laughs> donc réew mi loolu moo waroon nekk débat bi nga xam ne même li président Macky Sall defoon ca corona bi mënoon na ko defaat ci biir même les les leaders de l'opposition war mënoon na leen a consulter ne leen lii de dal ci réew yi du bàyyi suñu réew te effort yi nga xam ne gouver parce que gouvernement Macky Sall def na ay yu bëree bëree bëri pour que njëkk yi bañ a àgg ci yenn coûts yi mais effort yooyu doyul li tax doyul mooy ba léegi soo demee ci marché bi nit ñi am nañ problème pour jënd njëg njëg pour jënd njëg yi nga xam ne moom la ñuy pratiquer mais loolu yëpp ko war na waxtaane ba ku nekk comprendre lan mooy bi ne idée wu wàññi bi du politique du wut ay militants du wut ay du dara mais dañ ko bu fa jaaru réew mi jëm ci guuta parce que bu fàtte les émeutes de la faim yi nga xam ne moo fi amoon en juin 2011 ba daanaka pouvoir u Ablaye Wade loolu moo ko yóbbaale te ces émeutes là bu ñu dajewul waxtaan ci njëg yi njëg yi ñuy jaaye coow dina am te li ma gis diggante démb ak tey ñu koy defee ministère du commerce di ko defee du lool moo réglé dem ci marché bi di nangu marchandise yu jàmbur yi parce que dañoo bañ ne duñ wàññi du loolu moo koy réglé waxtaan wu yaatoo yaatu la waroon laaj mais malheureusement ñun suñu waxtaan fi mu nekk nii li ma ci gën a naqari mooy da taal suñu chaîne de télévision yi gis ci ay nit yu toog yoo xam ne àdduna mënoon naa dox ba jeex du ñu toog mukk di wax mbooloo di leen déglu ñu teg leen ci ay télé ak ñu ne fa naan diwa yàkkataan diw ba mu ko yàkkataanee nii la ko def lii lañ def lii lañ doon def ñun loolu la ñuy waxtaane du matin au soir ba ngoon jot ñu fay télé yi dem tëddi bu subaa ñu taxaw naan njëgi dafa cher mais njëgi dafa cher nañu waxtaanee yu mel noonu nañu waxtaane ces débats de fond là tey naa benn bu ko bind am xëy ci réew mi ni mu poser problème mais yooyu sujet yi ñu ko waxtaanee Jamil est-ce que seetlu nga ne depuis quelques semaines Sénégal da nga fiy dégg loo xam ne man du ma ne mësta am mais li mu ko dégg bariwul mooy li ñu tuddee ay attaque arme ci biir Ndakaaru bëccëgu dara kàmm fii ci jam ñaajo démb nee nañ gendarme yi dóor nañ fi nit bal mu dee jam ñaajo parce que dañu fa attaqué ay nit ak ay armes euh, dóorante ay bal ak gendarme yi mais loolu waxtaane wuñ ko ci réew mi presse bi ko bind rek après ñu jaay ci leneen. oui la même journée à mbaaw ñu attaqué fa benn euh, multi service ak benn xaw ma lan Auchan benn magasin wu Auchan ba jeeg 4 heures du matin affaire yooyu ak Mbao ay 4 heures du matin lañ ma wax. keroog fii boobu ñëwaguma congé fii laa liiree ñu ne fii ci wetu kër président Macky Sall am na ñu fa jàppoon parce que dañu doon yoroon ay ay ay ay fetal di dóor di dóorante mais yooyu débat yooyu daf ñu war ñëpp. pour ñu waxtaane ko pour xool est-ce que amul luy commencer di xew suñu réew mi te daaw fi xew lan moo ko jur ñu trouver ci ay solution mais malheureusement ñun li nga xam ne moom la ñu bëgg a trouver solution mooy ay question viol boo xam ne deux mille vingt et un la ne moom la xewoon bu deux mille vingt deux kenn mënu koo lijjanti te kenn du ko lijjanti way te kenn du ko lijjanti yu mel noonu hmm? ñu ngi jéggalu ñëpp <laughs> di baalu ñëpp j'espère que waxtaan wi tey am na solo en tout lii moo ci yéene bi mooy di ko partager ak yéen su ma mënoon a am euh, jot tuuti rek euh, yeggale ku mel ne euh, Ousmane bon waa ji nee na Germaine Germaine mu ne d'où viennent ces armes Germaine laaj nga lu lu jar a laaj Moustapha mu ne c'est Baba depuis Paris Baba maa ngi lay bu baax a baax. mi ngi noonu euh, xam naa ne message man su ma dee lii ci machine bi day jafe ci man parce que bët yi dafa commencé di truc mais bon en tout ngi leen di gërëm ñoom ñëpp Fatou tolloon nañ ci cinq mille deux cent vingt six personnes yoo xam ne ci li may liir nii ah. mille quatre cent ñoo àndoon di ñu seetaan tey ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen jaajëfal. di leen jox daje bu neexee yàlla bu ci kanamee tuuti ci keppaar gi bu talaata incha allah ñu ñëwaat toogaat fii ci suñu bureau bi di waxtaane ak yéen ci yeneen sujet d'actualité yàlla na yàlla def balañ cee egg ñu naan Pape Alé Niang génn na wala boog bés sàng